waroon a bi le 13 août. yàlla def mu faatu le 8 août. résultat yooyu ñun ñoo dem ci hôpital bi expliqué leen dal di ko retiré. Mm. donc bi ñuy envoyé dossier ci fiscal bi. Mm-hmm. li ñuy def mooy joindre dossier yooyu pour ñu xam ne kii. am na lu ko daloon bu njëkk avant muy faatu. Mhm. donc bi ñu ko gisee aussi directement dañ ko boole ak seen autopsie bi ñu def léegi ñu gis ne résultat bi. Mhm. maanaam méngoo na donc ñu xam ne kii lii moo ko faat. donc loolu moo tax immédiatement fiscal dafa daal di joxe ordre. Mhm. dossier bi jaar ci justice. justice bi aussi ndax lépp électronique la heureusement aussi pour ñun. ndax des fois sax bu fekkul woon ne affaire pandémie da ngay xel di dem tribunal di yéeg di mais bi yoon. lépp par email nga koy dugal envoyé ko dossier bi ñu defar ko ba juge yi joxe ordre mu daal di dem Sénégal. merci beaucoup jërëjëf sama Moustapha ci leer yu am na solo. xam naa dama ci focaliser tuuti rek mais liggéey boobu ngay def Moustapha yow rek kan kan nga ci àndal daf na ñoo ci jàppale wala yow rek yaa dox yow rek yaa def démarche yooyu e, ñëpp a koy def e, ñëpp ñoo koy def nekkul ne Moustapha dafa wéet ci li muy def bu ma nee ñun ñëpp a koy def parce que bu leen fàtte ne Eh, kenn ku nekk da nga yëkkati sa alal daal di ci def eh, te mu am solo man aussi damay yëkkati sama alal aussi def ni ñëpp mais aussi dafa am loo xam ne mooy question administrative wala question judiciaire yoo xamante ne uh-huh. ah kenn ku nekk ak li nga xam te même bu fekkee ne xamuñ ko woon dañ cee yàgg di dox uh-huh. te ba depuis le premier moment bi nga xamante moom la lii di commencé am. Uh-huh. et terewut ne saa yuñ ci amee ñoo xam ne soxla nañ leen pour maanaam ñu ñëw di xool mbir moomu nu muy demee nuñ koy defee. ngir dëgg ma la foofu laa bëgg foofu laa bëgg a jëm ça veut dire que soo gisee moo xam ne la. Mm-hmm. kan nga àndal ci liggéey bi xam nañ ñu ñëpp la joxe mais presque xam nga doomu aadama. Mm-hmm. yàlla du ko bindee man ak télé. Mm-hmm. tey Moustapha bi ngi ci suñu biir. li xew ëllëg yàlla moo ko xam. est-ce que am nga ñoo xam ne yaa ngi leen di pour fi ngay jaar ba mën a lijjanti kër yi ba koor bi mën a dem. ëllëg tey ba ñu sama soxla mos a nekk yenn activité yoo xam ne moo ko occupé ba gis ñu ko ñooñu may dem dox loolu loolu laa bëgg a xam réellement. exactement en réalité bu bépp décès boo xam ne am na fi. ñi nga xamante ñoo jege ci association yi ma mun naa citer par exemple le cas de Arfan. le cas de Babacar Mbaye par exemple. ñoo ñëpp de fois selon le cas. Euh, bu dara xewee dañuy ñëw di jege si di xool di dem su ma soxlaay par exemple ñu dem ci benn bërëb ñu dem fa. xool mais ñi nga ma citer nii rek def doguma la ñu nga ma citer nii des fois duñu fa nekk ñoom tamit. des fois mais. <laughs> kenn mënul assurer ne à chaque fois nga nekk fii donc loolu moom. dépendul ci doomu aadama lañ yoo xamante ne tey yaa ngi fi ëllëg nekkoo fi man mii tey mën naa fi man am na dese boo xamante ne fekkuma fii ci Argentine te pourtant ñëw na Sénégal man benn dese moo ma fekkul fii ci Argentine 2010 ba 2020 bii ñu nekk ci décès bii mujj nii. 27 uh-huh. sénégalais ñoo fi gaañu. ndeysaan ci 10 ans. Uh-huh. benn moom ma fi fekkut te yàlla def na mu ñëw fi Sénégal. alhamdulilah donc fekk na donc am na ñoo xamante ñu ngi fi te xam nañ ko te bu ñu leen wonee yoon wi aussi moom ñu def ko. xalaakul yàlla bii aussi la même chose yaakaar naa ne ku mel ni Galaay par exemple. Uh-huh. ak booy yi nga xamante ne gis nga ne am nañ pas-pas. ndax yombut ah. xalaakul yàlla nit bëgg ko. te du ko mën. du ko mën. temps bi dafa jé day jël temps day heures yi des fois day xaw a doy waar si question judiciaire uh-huh. ndax da ngay xel di jóg ay 7 heures du matin di dem justice ay lu kenn xamul te wax uh-huh. dëgg neex yàlla aussi Eh, dem ci bërëb yooyu dafa laaj aussi nga dégg làkk espagnol uh-huh. xam aussi dégg làkk bi kese doyut sinon xam li nga xamante moom nga bëgg uh-huh. mais moo tax nag aussi dafa baax maanaam ñuy gën di former di ndaw yi nga xamante ne daf ñoo def leen a te ñoom ñu xam ne mun nañoo jàng ba xam ñu koy ñuy ñëw di jege si di xool uh-huh, wax dëgg yàlla ci cas bi par exemple depuis bi mu xewee muy police commissariat bi bu ñuy def dénonce Eh, ay fiscal li ñuy envoyé ak kii yooyu yëpp même expédiente bi sax dama ko génne par exemple xool woon ko ku mel ni galaay pour mu xool ne xoolal ngir ëllëg te keneen bépp sénégalais boo xam ne aussi ñëw na noonu lañ lay koy defee mhm. mais jàngale dafa day neex gannaaw boo gisee koo xam ne dafa ñëw ne jàngal ma mhm. mais adduna bi ñu nekk maanaam mënoo di woo forcé wala nga existé exactement parce que sinon nit ki da nga koy forcé ci loo xam ne ëllëg bëgg na ko non mën na la sax man bëgguma ko woon yaa ma koy forcer. mais intéressé wu ma ko. Mhm, mhm. intéressé wu ma mais bu fekkee ne dañoo ñëw nag. Mhm. man mii kat wala nga gis ne kii kat lii intéressé na ko. te am na te certaine responsabilité. moo gën a yomb pour ñu kii ko su ko defee tey boo mënut wala ëllëg boo mënut keneen ñëw mais même boo mënee sax nit ñi di la ci jàppale mooy gën a am solo. merci beaucoup sëñ Sow kaddu yi am na solo loolu boo gisee ma insisté ci loolu dafa am solo ndaxte wala dañu lu kenn mën ñaare ko ko dàq. exactement te bu fekkee da ngaa nekk ci barab da ciy yëngu lu xew rek ngeen war Moustapha war Moustapha te Moustapha benn loxo la parfois day jar nag wax dëgg yàlla tamit ku mel ni man ku mel ni keneen volonté tamit jéem a nekk ci baax heureusement ci bépp euh, démarche yi ñuy dox aussi wax dëgg neex yàlla familier ñi nga xamante ne ki nga xamante moo gaañu dañuy taxaw. Mhm. ci li nga xamante ne aussi moom lañ mën ak fi ñu leen soxla. Mhm. te comme ni ma leen ko waxee rek. ñi nga xamante ne am nañ tuuti étude uh-huh. mën a bind uh-huh. wala ñu mën a làkk la eh, espagnol uh-huh. et à chaque fois dafa baax ñuy jege si ngir di jàng ndax mais ko jege fan ngay jege fan ngay jege ku bëgg a jege jege amul maanaam fan ngay jege nekkul ne lii dafa nekk maanaam benn bureau wala benn institution boo xam ne da ngay dem ne kaay ma jege si dara bu xewee maanaam kaa yu bëri dañuy xaar maanaam ñu ne kaay lii xew na kaay maanaam ñëw jàpp ci walla kii. li nga bokk laata nga la cee woo. Euh, nit boo ba bu la dara jaralee da ngay engagé wu. boo ko mhm. déggee rek demaat. yaakaar naa lu xew fii ñun ñëpp a koy yëgandoo. xale ku yàlla man du ma xaar kenn ma ñëw su ma mhm. ko yëgee rek maa nga fa. donc maanaam keneen koo xamante ne kii nga boo ñëwee rek ñun lu ñuy ñaan à chaque fois mooy ku la ne. kaay ma jàppale la ci lii. ndeysaan lii jox ma ko lii mën naa ko et cetera wala nga mën koo ne lii mu def ko. ndeysaan des fois nag aussi dafa baax mu doon koo xamante ne am na responsabilité boo ko joxee benn recommandation moom mu defee ko ni nga xamante noonu la waree. Mhm. wala des fois sax bu commettre erreur nga xam ne day jàng erreur yooyu mooy tax mu mën a. Eh, maanaam améliorer ëllëg. ndeysaan eh, mais nag nit ñooñu à chaque fois ñu leen di wër maanaam di leen convoquer pour maanaam mën a ñëw. mën a jàng ndax coono bi des fois day metti uh-huh, uh-huh. xam nañ ne engagement bi ci am ak ñeneen ñëpp ñu ngi ci am ak yéene bi uh-huh. am na solo mais ndax dafa baax kenn ñaar ñett ak ñeent ba fukki nit mën a taxaw ci loolu ndax loo defut benn yoon ñaari yoon rek chaque fois boo ci ñëwee mu nekk la première fois day gën a jafe loo jàngul mën a ko tari donc loolu ñu jéem cee góorlu bu baax dafa am solo xam naa ni sax ñu ngi lay jaajëfal bu baax ci kàddu yi xam naa damay loolu parenthèse la woon rek mu mel ni sëñ Ousmane li yi nga xamante ne ko seen jortu wala déet maanaam somme euh, mhm. bi ngeen soxla woon yaakaar naa am ngeen la koy seen jortu yaakaar naa su ma jumul ci moment bi nga xamante ni moment bu difficile la mhm. ci panne boo xam ne Sénégalais yi liggéeyuñu waaye jaayante ko ak gëm-gëm ak bëgg-bëgg ba sa borom dogal dem ci jàmm waaw loolu dañ ci sant euh, yàlla sant ci mbooloo mi yëpp. Mhm. Euh, lu tax parce que euh, ay nit yàgg nañ fay gaañu ci dëkk bi. Mhm. amul kenn koo xam ne aussi mos na fee des ndax manque xaalis. ndax manque xaalis dañ doon dem peut-être ci moment yoo xamante ne si day manque xaalis. ñoo amee ay bor lijjante bu fay ko. Mhm. muy ay xaalis yu ñu dencoon ci association wala ñeneen nit maanaam duggalaat seen i alal sax pour mu dem. Mhm. mais wax dëgg benn koor mosu fee des ngir maanaam manqué. wala koppar ne koppar la. Mhm. yaakaar naa ne e, ñaari sénégalais lañ fi suul. sànq wax naa 27 sax mais 28 ndax duñu fàtte benn sénégalais boo xam ne si bien amul woon relation ak sénégalais yi. ñu bëri xamuñ ko sax yëgguñu sax kooku mhm. kooku gaañoo na fi mais si ñun ñoo dem ci hôpital bi mu nekkoon retiré corps bi dem yóbbu ko cimetière musulman denc ko fa ndax kenn xamu ko woon te kenn xamul woon ay xam naa ci dara xamante ne la pandémie bi commencé woon moom la mhm. gaañu mhm. à loolu ñëpp a dem Sénégal donc ñu sant mbooloo mi yëpp te amul benn moment boo xamante ne mos nañoo am lim bu toll ni xaalis bi nga xamante ne daj na fi bi yoon mhm. te mu nekk ci moment boo xamante ne moment pandémie nga xam ne nit mhm. ñi dañuy tal lu ñuy lekk ñuy mhm. tal lu ñu fayee luyaas ñi dem ci ay jafe-jafe seen kër donc loolu aussi dafa am lu am solo loo xam ne war nañ ko cee jàngat muy ne eh, actuellement eh, li nga xamante ne mooy réseaux sociaux yi dafa am benn parti boo xamante ne ñu ngi ci ñu ngi ñuy dimbale. Uh-huh. si bien que am na benn parti boo xam ne doy na waar. lool day yàq uh-huh. mais nag uh-huh. yàlla def na ñi nga xamante ne ku mel ni sëñ Xaadim créé ay groupe yoo xam ne dañoo lëkkaloo. ba pare lu xew rek ñu dugal fa. information ba pare nag di soññante. ndax maanaam nit mën na. ba mën a ci côté administratif mais aussi beneen côté bi. Uh-huh. kenn ku nekk daf cee war a am responsabilité di soñ sa morom. Uh-huh. kër gi nga nekk gox gi nga nekk et uh-huh. te wax dëgg yàlla soñante boobu yaakaar naa am na ci solo moo tax aussi nit ñi ñëpp jéem cee def seen kéemtulaay kattan. ba tey jii li nga xamante ne moom lañ ci soxla woon. pour rapatrier corps ba fay ko ba yaakaar naa ñëpp gis bi ñu fay. ak bi nga xamante ne moo fi nekkoon. et donc yaakaar naa lu am solo la. alhamdulilah Sénégal loolu dañ ciy jaajëfal jàmbaar yi nga xam ne ñoo ne fii ci mbedd mi di ay jàmbaar yu am jom ndeysaan di yëkkati seen alal Sénégal yi ngàcce ngalam ñoom ku ci nekk xam di wax naa alal di ko ci def loolu ñu ngi leen di jaajëfal képp ko xam ne sa ñaq demoon na ci rek yàlla la sa borom fay ku ci amoon yéene it yàlla na ko sama borom àggalee sëñ na ko ñu ngi koy xaar xam naa ni insha allahu taala dinañ ci xus bu a baax a baax ah, ak sekk ak mbayeen yi ñoom xalaa kuli ah dañu bëgg di xéru ndeysaan sëñ Moussa lan moo waral xaalis bi yeex. waaw eh, yaa may laaj ci domaine boo xamante ne. Mm-hmm. Eh, wax dëgg neex yàlla. Mm-hmm. Eh, ñun ñëpp a ci yem. Mm-hmm. lu tax parce que ñun ñëpp membre diaspora lañ. Moustapha moodu moodu la comme yéen ñëpp immigré un point un tiré di liggéey comme yéen ni ngeen di liggéeyee di jàppale ay famille am di def ay kii am autorité Argentine fii du ma autorité Sénégal. Mhm. maanaam immigré la un point au e tiré yor sama liggéey ak sama profession sama responsabilité. Mhm. mais lan moo xew dafa am loo xamante ne comme bi yàlla dogalee par exemple gouvernement bu Sénégal. loolu mhm. aussi ñu sant ci yàlla sant ci gouvernement yi ndax am na gouvernement africain yu bëri ak yu. nekk ci àdduna bi yoo xamante ne defuñ ko. Uh-huh. donc euh, bu suñu gouvernement aussi jëlee benn somme baaxee ko diaspora bi. Uh-huh. jël benn plateforme daal di ko dugal ne képp ku nekk ci diaspora bi rek mën nga cee dugg. Uh-huh. yaakaar naa ne loolu aussi nekkoon na benn facilité donc kenn ku nekk mënoon na cee bindu. yaakaar naa def nañ li ñu war en tant que. référent mhm. pas autorité mais en tant que immigré bu bëgg a jàppale moroomam ñu ne nit ñi mhm. inscrire leen mhm. nooy inscrire fii ngay jaar kañ nga ko mën a def noo ko mën a defee donc loolu suñu responsabilité la woon en tant que disons référent wala en tant que koo xam ne daal daa bëgg jàppale moroomam mais bi loolu demee ba weesu bu xaalis bi bu ñëpp inscrire ba pare même procédure bi aussi même ñi nga xamante ñoo waroon matali seen papier et cetera bu ñu neexoon aussi duñ ci dugg. Mhm. parce que kenn c'est une affaire personnelle c'est-à-dire kenn ku nekk yaa waroon inscrire sa bopp def lépp nañ la ko laajee. mais mhm. comme xam nañ ne ñëpp yemuñu. am na ñi xamante ne mën nañ koo def mu baax am na ñoo xam ne mënuñoo sax envoyer email wala sax mënuñoo envoyer dossier yu complet wala xamuñ sax li ñu war a envoyer. moo taxoon aussi ñu ciy dugg di jël ay WhatsApp di dugal seeni photocopie document. di envoyé ambassade bi aussi collaborer ndax lan ñu génne benn email pour nit ñi envoyé bu ñu gisee ne aussi mënuñoo envoyé ci email mu accepté ñu koy envoyé ci seen téléphone whatsapp mhm. pour lan pour ñëpp daal mën a inscrire mhm. donc lan moo xew bu ñu demee aussi ba xaalis bi commencé ñëw ci biir euh, euh, ci côté ambassade mhm. euh, par tranche dañoo ne dañuy créer benn commission. Uh-huh. c'est commission boobu moo war a yor lépp li nga xamante ne moo jëm ci wàllu distribution. xaalis xaalis bi commission boobu Moustapha bokk ci. commission boobu amul ku nekk Argentine ku ci bokk. mais nekkul ne commission boobu ci ku nekkul argent ku nekk Argentine bokkut du dox si mu ngi dox normal mu war a doxee mm-hmm. parce que responsable bu ambassade ba ak ki nga xamante mooy le député bi nga xamante moo nekk ci suñu juridiction ñoo ca nekk mm-hmm. euh, donc euh, macha allah ñu ngi def seen liggéey lan moo xew dëkk bu nekk ak gox bu nekk ak réalité mm-hmm. tey mënuñoo jël suñu bopp Eh, maanaam di comparé wu ak ñi nga xamante ñu ngi Gambie wala ñu nekk Mauritanie. Mhm. mënuñoo comparé suñu bopp ak ñi nga xamante ne peut-être ñu ngi France wala Espagne. Mhm. foo gis rek zone boo gis rek solon le temps et l'espace day am say propre réalité. Mhm. Brésil moo yor suñu juridiction yor si waa juridiction waa Chili ak waa Uruguay ak ñi nga xamante presque latin bi laa mën a wax. latine bi kenn ku nekk xam nga ne fii ci Argentine dugal fi xaalis. même bu fekkee ne du pandémie sax. Mhm. yombut. mais lan moo waral mu jafe noonu. loolu loolu c'est de ay question la yoo xamante ne ay question administrative bureaucratique financière bu Argentine la yéen gis ngeen ne am na benn moment boo xamante ne fii gouvernement bi dafa téye woon ne kenn mënatul jënd dollar par exemple da koy gis fii. waaw da gis ne. gouvernement bi des fois def lay wax ne maanaam yow mënatoo envoyé Sénégal lu ëpp maanaam cent mille fa par exemple par mois. Mhm. comme ma jox la exemple. maanaam ñuy couper nit ñi maanaam di leen. limité pour lan pour bañ fuitu xaalis yi. mais leneen li nga xamante ne mooy ñëw aussi maanaam des fois ci Argentine day am. difficulté pour yow nga nekk à l'extérieur duggal xaalis ci biir Argentine. Mhm. dafa bari ay démarches yoo xam ne ay procédures yoo xamante ne dañoo xaw a mhm. ñëw ci kanam tuuti. donc lan moo gën a métti la affaire bi. Hmm. bu fekkoon ne ñun dañ fay am benn représentation diplomatique. c'est-à-dire hmm. bureau consulaire wala consulat honoraire. kooku autorité administ politique la non du politique autorité diplomatique lay doon. Hmm. donc kooku. dina mën a am benn compte boo xamante ne ça sera dañ koy réservé pour maanaam genre question yu mel noonu. Mm, d'accord mën na yombal yow ambassade bi jël kii bi transférer ko directement ci moom. Mm-hmm. que maanaam mu koy jàllal ci yeneen anam. Mm-hmm. leneen li mooy bu dul woon pandémie bi même bu dee benn voyage sax. Eh, ki nga xamante ne moo yor walub xaalis bi muy comptador comptador bi comptador bi mm-hmm. mën na déplacé wu ñëw ba fii te aussi faw ñu xool benn affaire même bu fekkee ne moom diplomate la ci question yoo xamante ne yow da ngay ñëw ci xaalis boo xam ne day dem comme lu mel ni aide et cetera. Uh-huh. mënul voyager ak plus de dix mille dollars. des fois da xool loolu des fois ay politique yu Brésil mën na ko bañ wala politique u Argentine mën na ko bañ donc yow imagine lii ay millions la. nekkul uh-huh. ne ay quelque kii li ñu. envoyé de joxee gum fu mu la moom pour le moment rek ëpp na 2 millions de pesos donc maanaam boo xoolee bu ñëwoon ba fii sax uh-huh. ak benn tànd uh-huh. maanaam nekkul ne sax day mën a jox ñëpp ci benn moment uh-huh. donc loolu aussi bokk na ci li nga xamante ne gàllankoor liggéey bi parce que maanaam kenn mënul ñëw te même bu ñëwoon sax mënu koo jox ñëpp donc lan moo xew bu fekkoon ne aussi diggante Brésil ak Argentine affaire transfert xaalis ci compte yomboon na kenn ku nekk am sa compte bancaire nga xam ne waa ambassade ba dañuy toog rek kenn ku nekk mu transféré la ci ñaari fan la pare mu jox takk tey jii loolu amut mënul am ambassade bi sax même bu jëloon sax di jéem a transféré ci compte jàmbur fii mën nga toog ay weer ba balaa nga koy jot. Hmm? te mën na indi ay jafe-jafe dinaa leen ci kii léegi. ci li nga xamante ne mooy affaire compte yi. Hmm. leneen li nga xamante ne moo ci topp mooy <coughs> <coughs> euh, bi nga xamante ne loolu am na. ñun li nga xam li ñu def mooy dañoo daal di ne bokkuñu ci li nga xamante mooy commission bi mais ñun bu ñu toogee croiser les bras. Mhm. ëllëg aussi communauté bi mën nañoo ne ñun mënoon nañoo def dara. doguma la mais su ma jumal yow jamono yële passé yaakaar naa jotoon nga fi 17 personnes après nga fi nga fi xaalis wala jotoo fi yi euh, démb laa door a envoyé kii bi ñu ngi jeex euh, barki démb. ndeysaan boobu ba léegi jotaatu gu ñu xaalis. jotaatu gu leen xaalis voilà mais nag. loolu aussi faw ñu leeral. waaw bëgg naa nga ñëw ci si Moussa waaw. donc euh, lan moo xew. Mhm. ñun bokkuñu ci commission mais dañoo ne du ñu toog di xaar. li ñu njëkk a def d'abord mooy def benn note boo xam ne dañ cee élaborer lu bëri avant xaalis bi di yegg si. Mhm. d'abord proposé waa ambassade ba ne c'est vrai que. képp koo xamante ne yaa ngi fi. Uh-huh. pour nga démontrer ne sénégalais nga da nga war a présenter sa document sénégalais pour nga inscrire d' abord. Uh-huh. fois ñu bëri seen document dafa jeex te texte yi dañoo ne document bu valable. Uh-huh. donc ñu ne leen aussi foofu ne pexe leen aussi ba. Sénégalais yi nga xamante ne dañoo nekk fii seen passeport ñu bëri seen passeport dafa jeex te amuñu possibilité di renouveler seen passeport ñu ci bëri amuñu carte consulaire wala amuñu carte d'identité donc xool leen benn moyen boo xam ne mën ngeen koo def ba ñàkk carte consulaire wala ñàkk carte de euh, d'identité wala passeport bu valable du la tere am ci lii bi ambassade ba aussi yàlla def aussi ñoom loolu ñu analyser ko mhm. daal di commencer ne képp koo xam ne sa document dafa jeex ñu envoyé ñu benn formulaire carte consulaire yoo xam ne dañ la koy remplir ak sa coordonnée yépp mel ni koo xam ne mu ngi def démarche carte consulaire ñu envoyé ko ambassade bi ambassade bi validé ko comme document oh. c'est-à-dire lépp loo xam ne mënoon na faciliter Sénégalais yi pour gars yi mën a ak am accès am def nañ ko xaalis bi war a ñëw donc amuñu woon neneen noo xam ne mënoon nañ ko envoyé il fallait que kenn jël tamit ni responsabilité mhm. biñ ma ko waxee aussi ma accepté leen ko accepté mhm. ma ko ambassade ba wala Sénégal dama ko accepté communauté sénégalaise bi nga xamante ne ñoo inscrire mhm. lu tax parce que sama risque la ndax man di dem Western Union di retirer ay cinq cent mille pesos wala trois cent mille man maay sama tour moo ciy nekk afib di ma xool di gis ne ay millions ñooy dugg sama tur mhm. diggante benn dërëm moom ma ko ci mhm. samay xaalis laay jëlee taxi di dem di ñëwaat sama risque aussi laay jël parce que mën naa dem Western Union di gën ñu ñu agressé ma te kenn du ko gëm mhm. mais nag ñun ñoo gëm yàlla sant yàlla te di jàppalante ba pare nag euh, di ko def nag te defuñ ko ndax dañ koy def maanaam ci turu association. Mhm. defuñ ko ndax dañ koy def ndax maanaam ambassade bi lañ koy defal dañ koo def ndax citoyen la boo xam ne. Mhm. peut-être autorité yi ambassade bi am na wóolute bu ñu am ci ñun ndax lépp loo xam ne mos nañ koo sant. dañ mhm. leen ko mos a defal jox leen compte rendu yu leer. donc biñ ñu ko ñaanee aussi ñu accepté leen ko. ndeysaan biñ ko accepté aussi ba pare avant ñuy def dara dañoo ne dañuy créer loo gis ci àdduna. li ci gën mooy nga am see na am seede surtout bu ci xaalis duggee euh, yàlla mooy def aussi nit euh, euh, di ànd ak prévention mhm. ba adelantaar loo xamante ne mooy li ñu mën a wax ëllëg mhm. moo tax lépp lu ñuy def rek dañ ciy sant yàlla te tranquille ci mhm. moo taxoon ñun ñu ñu créer benn commission boo xamante ne dañ ko tuddee coordination force Covid ambassade ba créé ko ñun ñi ñoo ko créé dugal ca kan njiitu daara Tijaan. Mhm. njiitu daara Murit kenn mënul wax communauté sénégalaise. te te waxoo ñaan mhm. jël président association bi dugal. Mhm. jël njoogu Samb par exemple nga xamante ne kenn du ne waa association bi ñoo fi nekk. dugal <laughs> Babacar Mbaye c' est un expert waa joo xamante ne ay xalaat yu. kii te engagé wu dugal ko ñu ko ñuy jël kanati jël benn kii koo xamante ndax àdduna bi aussi lépp looy def. médias de communication yi dañ koy commenter ñii di bëgg a wax information dafa baax. Mhm. ñu jël kenn koo xam ne mu ngi dox ci wàllu information dugal ko ca. Mhm. muy sëñ Gora. Mhm. pour lan pour lépp lu ñuy wax ëllëg aussi moom mu mën a wax peut-être ci loo xamante ne mu ngi koy gis. xam nu muy doxee. donc boo jëlee nag ñi nga xamante mooy njiitu euh, communauté bi. wala ñi waaw ñu xam rek ñu bari. ñi xam dugal leen. lépp lu ñëw nga dugal ko foofu. Mhm. ñoom ñuy gis xam ni ngay doxale mhm. boo tëddee da ngay nelaw. donc loolu la ñuy kii donc naka la ñuy def xaalis ba ambassade ba bu koy dugal. Mhm. day jël ay nit foofu ca ambassade ba ñoom ñu dem Western Union dugal benn somme. mais li ma jaaxal somme bi mënul passé quatorze personnes wala quinze mënuñu am trente. non na koo passé. mun na ko passé ça dépend. lan moo waral lool. parce que kenn ku nekk dafa am montant boo mën a dugal. ci yoon muy ambassadeur muy consulat yi ñoom. waruñu woon di envoyer xaalis par Western Union. Mm-hmm. loolu peut-être ñu bëri duñ ko xam mais ñoom sax ci yoon. Mm-hmm. nekkuñu faraluñu di envoyer xaalis keneen. Mm-hmm. wala ñuy recevoir xaalis ci keneen ci Western Union lii. cas boo xamante ne c'est exemplaire la. Mmh. te du ñëpp sax ñoo mën a dugal. Mmh. donc maanaam dañuy tànn ay nit ñooñu jox leen seen autorisation ñoom ñu dem. kenn ku nekk da nga dafa am loo mën a dugal. yow sax boo demee tey banque da ngay dugal ñu ne la non tey lii. nga mën a dugal mënoo dépassé mmh, c'est vrai dëgg la. donc buñ dugalee léegi somme boobu ñëw. ma retiré su may retiré somme boobu dañ may envoyé aussi fiche yoo xamante ne. ñi moom xaalis boobu ñëpp ñoo ciy nekk day àndaale xaalis bi Moustapha commission bi ñii la sélectionné ñoo moom xaalis bi mm-hmm. donc su ma retiré mm-hmm. damay am facture yi mm-hmm. am fiche yi am numéro téléphone yi jël ci fiche yi ñi nga xamante ñoo ko moom ak seen téléphone yépp dugal leen ci groupe whatsapp ci groupe boobu ma dugal ci jëwrin yi pour ñuy xam lii xew xew te sax aussi groupe boobu du sax man maa koy créer pour aussi gars xam ne aussi man dama indépendant te isolé wu damay jël keneen. mu créé la ko boo xamante ne maa ngi koy sant bu baax muy Lamine Sarr. Lamine Sarr ko loolu Lamine Sarr waaw di ko nuyu de passage ndeysaan si Lamine. constitution mu envoyé ko fiche yi ambassade mm. bi envoyé mu créé groupe bi. dugal mm. ma ci def ma administrateur ma jël reçu yooyu yëpp. Mm-hmm. ak fiche yi dugal ko ci groupe boobu. dugal benn message aviser gars yi lépp nu muy demee. diviser leen xaalis bi par nombre de personnes yooyu kenn ku nekk ñu fexe nooy. def ba ok nga baal ma xam naa rek euh, ñu taxawlu. Mm-hmm. tuuti ci li nga xam ni ci lay wax nu gis ni mhm. problème moo am pour xaalis bi ñëw Argentine mhm. ñi nga xam ni sax tey ñoom lañ doon dimbali ca moment ba doon sonn mën naa mën naa wax ni ñu ngi koy weesu mhm. lu te état maanaam bu ñu tuddee état ba nañu tudd ambassade bi moom amul benn relation ak réew mi ngir wax ni kat foofu dañ fa am ñoom suñu ay doomu réew am nañu xaalis bu jëm pour ñoom boo xam ne ñëw na pour ñoom ñoom ñu négocier ñu def contrat benn banque loolu lépp jaar ci wala yéen association bi nga xam ne yéen représenté sénégalais yi am ay këyit lu tey ngeen dox loolu ak euh, état bu fii bu bien que loolu lépp bu ngeen jiitalee na delluwaat ci ministère affaires étrangères moom mu bind ak ñi loolu forme boobu s ce est-ce wat ngeen ko. waaw dafa neex lool ndeysaan bu ñuy wax ci état wala ay xaalis et cetera. Mhm. pour ñoom des fois dañuy yaakaar ne boo nee ambassadeur rek maanaam mën na lépp. Eh, mais bu ñu fàtte ne. Mhm. banques yi banque yi la. Mhm. Eh, ni ngay amee problème yow pour envoyer xaalis noonu la état aussi mën a amee. problème mu envoyer xaalis nekkul ne question yëpp la état mën a ñëw ne beneen état bi defal ma li ñu def ko. état bu Argentine li nga xamante moom la état bu Sénégal di di jokkook ñoom ci ay question yu bëri yaakaar naa. bëri na mhm. eh, non si. bëri na si na parce ah, que tey jii su ma la nee. et gouvernement bu Argentine ñun voté nañ fi élection présidentielle te il fallait que maanaam ñoom ñu coordonné waxtaan mhm. yéen man tey su may recevoir xaalisu Sénégal yi nekk tey te nekk fonctionnaire état Argentine mhm. parce que ar Séné ambassade du Séné argent Sénégal bi nga xamante moo nekk Brésil informé na ambassade bu Argentine. Mhm. informé ministère des affaires étrangères. c'est-à-dire état bu Argentine xam na ko. xam na ko lan moo xew état bu Argentine lu mu baax baax mënul ne xaaral ma jox leen xaalis fii ngeen jox ma xaalis loolu amul. te segg nit maanaam boo ko xalaatee nii da ngay naan non baax na parce que da koy comparer ne su ma soxla woon 10 peso laay ba ma nekk fii ci wet wi mën na ma koo jox léegi diw joxal ma ko et cetera or ko demewul noonu c'est différent naa daka weer des fois dañuy jéem a wàcce langage bi tuuti pour mm-hmm. nit ñi commencer mais am na lu bëri loo xamante mu ngi ci teg kenn mënu ko expliquer mhm. parce que c'est ay question état la mhm. du sax Moustapha moo koy expliquer parce que Moustapha du autorité ambassade wala du kii mais sax au moins dama leen di wax li nga xamante ne au effort bi ma gis ñoom ñuy def mhm. te lu bari ñu mën koo nettali leneen mënuñ koo nettali ma avise leen ne par exemple jéem nañu par exemple jarale affaire bi ci compte bancaire pour ngeen gis ñi nga xamante ne dañuy wax ne maanaam état bu Argentine ndax mënuñu woon a kii. Mhm. banque nation eh, moom mooy banque bi nga xamante mooy banque bu bu Argentine bi. Mhm. Eh, biñ ci defee benn envoi lañ ci def. benn envoi boobu am waa ambassade bi bi ñu defee virement bi le 13 kii août lañ def virement bi. Mhm. bu ñu defee virement bi eh, ci sama compte ma dem banque nation présenté document yépp ñu ne ma si xaaral. dañoo xaar lu ëpp une semaine ñu dóor ma confirmer ne xaalis bi yegg si na ci ñoom. Mhm. ma dem ñu ne ma non balaa ngay mën a balaa ñuy mën a déposer xaalis bi ci sa compte. Mhm. da ngay indi lii. dañ maa laaj a laaj ay. nga signé ba sonn xam nga. Mhm. damaa signé ay formule déclaration xuraada. la waat lu ne comme de lu ne laa waat. ay déclaration ay loo xamante ni mot na ay. 60 papiers ñu signé ko complété ko dem yóbbu. te ñu ne sax te lu ma yóbbu rek ñu ne ma non non ñun nekkul nañu ñun ñooy décider banque centrale mooy décider. Mhm. fan la xaalis bi jóge fan lay dem parce que lan moo xew dafa am ci déclaration assermentée yooyu ngay def dangay gis ne dañ ciy def affaire terrorisme et cetera. parce que mhm. adduna bi nuñ ko wooloo nii facilité ko. am na ñoo xamante ne dañuy dox ci naka su dul noonu. ay mhm. état yoo xam ne dañuy finance benn groupe te fekk na peut-être groupe boobu ay terroristes. mafia lañ donc loolu yëpp dañ koy. enquête dañ koy enquête bu foo xamante ne yow peut-être yow yaakaaroo ko woon ci àdduna. Mhm. ci lan ci peut-être 3000 dollars. imaginez nag des million te tey jii barki rasulaay tey jii laa mujj ci banque bi banque bi bi ñu demee ba ma mën a retirer xaalis bi yëpp dama ko retirer. bi ma ko retiré presque xaw na ma tuuti un mois avant xaalis boobu moment bu mu ñëwee ak moment bi ma ci mën a jot. jot presque ma def na un mois. def na temp un mois def na un mois bi ma ci jotee. ba defar lépp dañ maa exiger ne boo paree faw nga indi compte bi ci banque bi. maintenant loolu yombul. damaa pare scanné document yëpp jox envoyé leen compte bi ci email tey jii laa dem jox leen papier physique yi te dañ ma santaat beneen mu ne ma compte bi nga defal ambassade bi bu eggee ci ñoom. réception bi nga xamante ne def nañ ko ba wane ne yow li nga doon def. ci xaalis bi lii la jox nga leen ko. Mm. di nga ko indiwaat. donc pour ngeen xool rek. kon ak ñoom paregu ma ak ñoom faw ma am réponse boobu ba pare door leen koo yóbbu ne li jaaroon ci sama tur nekk xaalis nekkoon xaalisu jàmbur. Mhm. jël naa ko jox naa ko seen si bien que jox naa leen reçu yëpp. Mhm. ak signature yi. mais faw ñu gis ne ambassade bi ma ko santoon. Mhm. man jox naa ko compte rendu ba mu defal ma ok. affaire bi yombul. donc loolu bu fekkoon ne lu possible la. ambassade bu Sénégal du ko du du ci sax taxaw. parce que moo koy faciliter nit ñi nga xamante ñooy envoyé xaalis gis ngeen niñ ci sonné. Mhm. man mi par exemple mosoon nañ maa coupé biñ ma coupé damaa dem négocier ak waa Western Union. Mhm. def li nga xamante ne mooy présenter sama déclaration ak lépp ba ñu ubbiwaat ma. Mhm. et waa ambassade bi la même chose ñuy dugal bu ñu leen coupé dañuy xaar. ba ñu defar seen démarche ba ñu kiiyaat leen ñu ñu ñu door a mën a commencé waat dugal. leneen li mooy xool nañ ay façon coopération yu nekk. te mënul nekk parce que aussi dafa am système boo xamante ne eh, dëkk da koy am te loi la te mënoo koo dépasser parce que nga respecté mm-hmm. loi la dépasse Western Union aussi même bu fekkee ne institution privée la dafa am ay loi am mm-hmm. naan non lii mënoo koo def lii mënoo koo defee nii mënoo koo defee nii nii rek nga ko mën a defee te mënoo koo dépassé parce que boo ko dépassé da ngay violer loi yi nga xamante ne mooy loi finance ak ay lu kenn xamut donc da ngay gën a dugal sa bopp ci problème boo xamante ne mm-hmm. et eh, bokkut ak man ma yor sama 75000 pesos bëgg ko envoyé Sénégal. ci mhm. question familiale. Mhm. donc loolu aussi nañ ci bàyyi xel. dara moo tax tey boo envoyé envoyé waat ñu coupé la. parce que lan parce da nga bëgg maanaam yow nga bañ a violer li nga xamante mooy loi financière. Mhm. noonu mu mën a amee pour sénégalais yi. noonu la mën a amee pour aussi ambassades yi si bien que ñoom am nañ benn. Eh, Eh, possibilité wala pouvoir boo xam ne mën nañ koo utiliser. mais am na loo oh. xam ne aussi mënuñ koo dépasser parce que ce sont des autorités diplomatiques. diplomatiques donc faw ñu respecter règle. waaw loolu am na solo si nga soo xam naa damay profité ci yoo xam ne rek am na démb numéro écran buy feeñ ci. Euh, pantecha bi képp koo xamante bi que ni am nga laaj yaakaar naa ma ci def sa benn audio bu gàtt wala benn vidéo di yomb la euh, ñi nga xam ne ñu koy joxe fii ci Marcelo mooy 11 62 52 24. képp koo xam ne bëgg nga ci béy yooyu rek incha allah taala ma nga ko am quoi euh, bu ñu jàll suñu Moustapha damay ay may faral wax ñoom a jëloon leen ci benn groupe ba groupe ba léegi ñoom jotuñu seen xaalis te ñoom dugaloon na leen ci groupe nga xam ne en général ku dugg ci groupe moom yaa ngi yaakaar ne nga jox sa xaalis <laughs> mais dugal na leen ci groupe ba tas groupe bi ba fi mu waxee yow ñoom France daal di leen Moustapha ñoom ñu loolu leen di wax waaw d'abord damay damay kii sax ndax sànq dama fàtte ne maanaam li ñuy wax ne Euh, aide bi yeeg et cetera ndax ñi li li taxoon ñu soxla ko léegi mu passé. Mhm. c'est vrai que képp koo xam ku képp ku sañoon. Mhm. muy ñun ñii. ñun ñi ciy dox bu sañoon mu nekk une semaine. mu jeex ah, lépp jeex ku ne defee leneen quoi ambassade balaa vraiment autorité yëpp la amee. billaahi métti na. Mhm. mais lan moo xew. c'est vrai que si ku sañoon teel koo jot. waaye ku ko jotoon aussi dépensé nga ko soxla nañ ko gars yi soxla nañ ko ci feleer <laughs> gis nga li nga xamante moo gën a am solo mooy na ñëw mm-hmm. saa yu ñëwee dina am lu mu faj xanaa ku li yàlla waaw ku sañoon nag mu gaaw xam nga xam ne dañu bëgg fi ne màggal gi a a mais bu a a la mooy dogal Mhm. non ñëpp comprendre nañ situation bi sax. xam nañ mhm. ne situation bu jafe la. bu compliqué la bu compliqué la. Mhm. xaalis moom du du noonu. donc lan moo xew aussi ci côté boobu. groupe yooyu. li nga xam ne dañ leen dugaloon ba tas groupe bi te ñoom jotuñu seen xaalis. groupe yooyu. waaw seeni borom waroon na quitter groupe bi yàgg na. Oh. sekk nag ku fa des da nga faa des ndax ñun duñu duñu faral di éliminer groupe. groupe bu ñu créé. dañu ko créé pour benn initiative. pare pare na. c'est-à-dire groupe yi nga xamante moom lañ doon créer yaakaar naa am na benn moment sax ma leen di wax maanaam ngeen di recevoir ay documents et cetera. Mhm. mooy groupe yoo xamante ne bu njëkk dañ doon sélectionner ay nit envoyé ma ko ne ma ñi dañoo war a compléter dossier yi. Hmm. léegi ma jël ñoo ñu dugal leen ci groupe au lieu que may naan may woo kenn ku nekk ne ma envoyé ma sa passeport wala envoyé ma lii wala lii nga war a def. Ah, d'accord damay créer groupe. non kon ça veut dire que xaaral rek non groupe moom nga créer pour joxe xaalis. non xaaral rek xaaral rek damay créer group waaw ne leen kenn ku nekk ci yéen yi nekk ci groupe bii. waaw sa dossier daa complet wut. ñii man bi ñu leen laajee ngeen envoyé seen dossier ci email ñu bëri peut-être envoyé nañ ko ñii envoyé wuñu mhm. ñii dañoo envoyé mais lu ñu envoyé baax parce que bu ñu leen laajee benn photo ñu envoyé photo boo xam ne leerut mënuñ ko liir wala ñu laaj leen photo seen passeport seen passeport bi ñu duggee ci seen téléphone envoyé seen photo seen marchandise donc lu nekk gis gis na am na loo xamante ne mënu koo wax mais nag ñu am patience ci ñoom ne leen xaaral ñu gën leen koo faciliter donc dañu doon créer groupe boobu ndax liste bu ñu doon envoyé ni nan ñuy compléter seen dossier kenn ku nekk na la envoyé passeport am wala carte d'identité am donc bu ma créé groupe bi dama leen di naan bu ma kenn envoyé de manière personnelle parce que du ma xam document yi pour lan la. pour lan la mhm. mais boo ko dugalee. ci groupe bi rek nañ ci jot yow ma xam ne parce que day dem. li moo donc bu ñu doon dugal seen papier ci groupe boobu. Mhm. dama doon copier rek envoyé ambassade directement. directement bu paree. Mhm. bu waa groupe bi jeexee. jeex na sata li ma leen soxla woon pare na mën ngeen gënaat. jeex na. donc ku gënaatut nag. nekk ci groupe boobu yaa baf yaa fa mm, nga xamante ne mooy groupe. Euh, li nga xamante mooy ñi seen xaalis yëg si. mooy ñu génne ci liste officielle yi. exactement su ma defaree groupe bi. Uh-huh. dama leen di naan groupe bi lii ko war ñëpp dugg si buñ ci dugalee ba pare ba ñëpp jotaat seen xaalis ma leen kenn ku nekk génn. mu jeex. bu ñëpp jëlee seen xaalis ba kenn ku nekk ne jot naa sama xaalis ndax lu ñu ku ñu jox aussi dañuy jëlaat aussi bi dugal. dugal ko ba ne jot ngeen ba lépp pare. Uh-huh. dañ leen di naan daal di kenn ku nekk génnal. ndax man nga ma xayma après ñaata nit nga jox xaalis boobu ak léegi bi ñu commencé ak léegi. non bon yaakaar naa liste bi keroog Babacar Mbaye dugal. na ko Babacar li mu fi li mu dugaloon ak li kii yaa ci diggante bi. yaakaar naa non non non ci kii boobu. amul complément la avant muy kii. maanaam ñi ah. maanaam ay 168 personnes yooyu. yoo xam ne jot nañ exactement naa leen informer benn cent 168 personnes yooyu am na ñeneen ñoo xamante ne dañ leen doon envoyé aussi ci de manière individuelle. Mhm. pour ngeen gis aussi initiative yoo xamante ne ambassade bi jéem na koo def. te jàllul. Mhm. Mhm. Euh, am na 12 personnes yoo xamante ne waa ambassade bi dañ leen a envoyé woon individuellement. individuellement kenn ku ci nekk c'est-à-dire ku nekk ñu jël sa tour envoyé la ci Western Union sa xaalis. sa xaalis envoyé ma reçu bi ne ma. dox nañ diw xoolal diw boo xam ne mu ngi fi ndax diw la nga door koo envoyé reçu bi. nga xam ne moom kese moo ko mën a retiré mais donc Makiya jël fiche bi woo ko ba xam ne moom la kon mhm. consulté daal di ko envoyé reçu bi ne ko demalal sa bopp Western Union nga retiré sa sa xaalis sa xaalis ci douze personnes yooyu ñett ñoo ci retiré seen xaalis ñaata personne ñett ñetti nit ñeneen ñi yépp kenn ku nekk dem ñu ne dañ koo coupé leen bloqué waaw mais léegi nag yow nan nga bëgg adversaire bi di dem di retirer waat xaalis boobu di demaat feneen di dugal donc buñ continuer procédure boobu du jàll déedéet donc procédure bu nekk essayé ngeen ko nañ koo essayé te du dem donc lan moo des jéem a xool production euh, possibilité boo xam ne bu légal la. Uh-huh. bu jaar yoon même bu fekkee ne day yéex. Uh-huh. na jaar yoon te na am sécurité. Uh-huh. su ko defee bu demee ba jeex. kenn du ci jooy te kenn du la ci mën a wax. ndeysaan solo gën ñu yàkkamti parce que dañuy kii dañoo bëgg def lii léegi dugg ci loo xam ne ëllëg ñun ñëpp a koy rëccu. ñun ñëpp koy wax dëgg wax dëgg. gars yi dafa mel ni li fi Moustapha développé c'est très très yàlla yaakaar naa ne kenn ku ci nekk ci ñun li nga doon xaar jot nga ci parce que yaakaar naa ne li mu fi nettali lépp mu yaakaar naa suñ góor comme ni mu indee ci question bu am solo boobu kon affaire bi bu ñu jàppee kon état mënu ci dara lu état mënu dara na yëg moo ci mën dara waxuma laa ñi nga xam ne ñoom ñooy mooy ndax am nga yaakaar nii am nga yaakaar peut-être xëy na ci mën a am yenn information yi leer mais ndax am nga yaakaar ni balaa fii ak diir bu gàtt di ngeen complété nga na ci liste officielle ñi nga xamante ne bi tamit ñooy troisième tranche yi seen xam ne maanaam génn ñoo ci liste officielle yi am déet non xaaral ñi nga xamante ne ñoom inscrire nañ complété seen dossier loolu ambassade bi moo ko xam ñoom ñooy kii. Uh-huh. te yaakaar naa ne. Uh-huh. ñëpp ñi nga xamante nañ complété nañ seen. dossier dinañ jot seen xaalis incha allah. man du ma laaj ambassade bi sax ñaata sénégalais ñoo inscrit parce que li ma intéressé. kese mooy yaakaar naa sax yow maa la ko joxoon exactement te man du ma ko sax laaj. Uh-huh. ndax sama yoon nekkul ci. ci waaw man li ma waroon a def en tant que immigré def naa ko jéem leen a inscrire un point jàppale leen ci li ma mën mhm. kenn ku nekk aussi ci ñeneen yi ci jàpp yépp def seen mhm. transport yooyu ngay def mooy jóge sa kër parfois nga jël sa téléphone woo benn Sénégal la ko fu mu nekk ba woo ko jox xaalisam léeg-léeg nga perte sa temps dem rang ci banque bi def benn fii la xaar pour jël xaalis transport yooyu da koy defee sa propre moyen wala da yaay fay xaalis boobu yaakaar naa gars yi ci li nga xamante ne mooy kër yi ci biir capital bi fii. Uh-huh. taala Mor taala jëwrinu daayira murid te mu bokk ci coordination bi. Uh-huh. mooy jël otom ma dugg ci ñuy dem kenn ku nekk ci këram ba dem nañ sax ba ay kër yoo xam ne ñu ngi nekk ba ay Lanus. Hmm? ba ay kee nu ñu koy waxati si ba dem nañ fi ba ba Lanus. bu joxe ci xaalis. def nañ fi boo côté si coté yaakaar naa ban côté la waay si yaakaar naa si côté Lanus ay boo yoo xam ne jox nañ dem ba ay côté Liniers yooyu. yëpp foofu yëpp jaar nañ fi joxe fi ay xaalis. si. fépp dem nañ fa. fii capital yëpp kii nañ ko te taala mooy taal otom di kii. Mhm. bu fekkee ne taala demut des fois aba mooy taal otom. aussi def tour bi. ndeysaan ñi nga xamante ne am nañ compte dañ leen di transférer normal ñi nga xamante ne amuñu compte dañ leen di defal procuration. ñu transférer ci compte keneen wala mhm. keneen jëlal leen ko. jërëjëf mbokk yaakaar naa ne xam naa ne foofu point la boo xam ne am leneen lu ma ci bëgg leeraat mooy. Mhm. Euh, dafa am loo xamante ne aussi dafa juddoo ci force Covid bi. Mhm. parce que si bien que yéex na. Mhm. dañ ci sant yàlla. alhamdulilah parce que gannaaw ñun ñu ngi fi nekk amuñu fi représentation diplomatique. te du mhm. sénégalais yi. yi nekk ci yeneen dëkk yi di am sénégalais yi nekk fii mën koo am. mën koo am sant yàlla la wax dëgg yàlla. sénégalais yi nekk fii boo xoolee keroog bi ministère bi di joxe contrant yi boo leen déggee ñi inscrire Espagne wala ñu jot seen kii. ak communauté ba nekk Espagne nga comparé ko ak ñu nekk Argentine da xool ba xam ne alhamdulilah am na ay différence bu mag sax te aussi boo déggee li nga xamante mooy quantité nit ñi jot ak ñi jotagut. Mhm. di nga xam ne donc ay quelques centaines nu Sénégalais yi jotagut. Mhm. ay toqal maanaam ci ñi nga xamante ne ñu jotagul donc du ñun kese des fois yi naan Argentine rek a des mais du mhm. Argentine kese buñ sanoon nag kenn ku nekk jot tey man barki rasulullah su ma sañoon tey mu jeex tey parce que dama gën a noppalee mhm, leneen lim ambassade ba la même chose aussi man je n'ai rien ngi ay jàmbaar yoo xamante dañoo dem ba seen téléphone personnel dañ ko joxe di dem di kii ci loo xam ne di liggéey ci heure mhm. yoo xamante dañ ko war dañ ko war a noppalu eh, góorgóorlu rek leneen naka xamante mooy li juddoo ci mbir moom mooy mhm. bi xaalis yooyu di ñëw mhm. nu muy mag bëri bëri nu mu tuuti tuuti sénégalais yi nga xamante ñoo koy jot mhm. yàlla dafa def bu ñu leen koy jox dañ leen di naan man mi personnel man mi xaalis bi di jaar sama loxo mënuma cee génne benn dërëm waaye nag bu ñu la ko joxee ba pare. Mhm. ñu ngi lay ñaan bu fekkee ne. sa xol may may na la ko. Mhm. nga def ci social. social social boobu daayira tijaan bi ak daayira murid bi sëñ Mamadou Ba ak sëñ Talla wax dëgg neex yàlla di ko doxal ci anam yu rafet. bu rafet. Mhm. gars yi di ci participer normal. ba dajale nañ fi xaalis bu am solo ndeysaan ñu yëkkati ci lu bëri daal di jënd ay ju ay commis ay dund daal di mhm. ko yóbbul sénégalais yi ko soxla jël nañ liquide aussi jël xool sénégalais yoo xam ne dañoo nekk ci ay situation yu extrême dem jox leen ko ngir dimbal leen ndeysaan loolu am na solo loolu la ñuy def ci loolu wax dëgg mhm. neex yàlla ma ciy sant euh, ñi nga xamante ñoo nekk ci commission bi ak daara yi nga xamante ñoo yor liggéey boobu am na solo ak yeneen sénégalais yu nga xamante ne aussi bi pandémie bi commencé ba léegi ñu ngi def ay social di dimbalante mhm. loolu aussi nekk loo xam ne lu mhm. am solo la. Mhm. leneen li nga xamante ne aussi moo jëm ci force Covid bi. Mhm. mooy ne tey tey jii naa leen wax benn affaire. ñi ñu sonal wala ñiy wax. wala ñi gën a manque patience. nekkul ñi inscrire. nekkul ñi jotagut seen xaalis. par exemple ñi inscrire wul. mooy ñi nga xam ne bi raw leen rek. ñoo gën a bëri la wax ci lii. ñu bëri dañ may woo téléphone ne man de inscrire naa mais wax yu. ànd ak yar ak tegil nañu ba waa man saa waay xaalis bi ka ndax mu ngi ñëw ndax kañ la kii nga expliqué ko ne waa mu ngi ñëw ndànk-ndànk jeex na man mosumaa gis mhm. mosumaa dégg man wala mosumaa recevoir benn message koo mhm. xam ne inscrit nu na mu ngi xaal xaalisam mhm. muy wax wax joo xamante ne dépassé dépassé na ndeysaan mais des fois wax joo dégg boo xam ne jaarul yoon rek dama boo xoolee ci ginnaaw ci biir xam ne kii sax inscrit wu ndeysaan leneen li ma ci bëgg a leeral mooy tey nit dina jot vingt mille pesos. Uh-huh. suba keneen jot vingt trois mille pesos. Uh-huh. gannaaw suba kee jot seize mille. Uh-huh. am na ñu jot treize mille cinq cent. fekk ni muy seen xaalis jaar ci compte bancaire. bu banque nation. treize mille cinq cent ñoo gën a tuutale. Oh. parce que lan parce que banque bi xaalis boobu day ñëw ci dollar c'est-à-dire. Brésil day recevoir day jël mille cinquante réal yi nga xamante moom la la war a jox. Uh-huh. da koy transférer dollar. Uh-huh. c'est-à-dire uh-huh. perte foofu. day jënd kon waaw dem ci banque bi dugal ko ci dollar. mu ñëw Argentine nekk dollar. Argentine jël ko def ko pesos. peso ci cambio officiel. ci moment boobu 73. donc lépp c'est officiel ak changement yu bëri donc bu ñëwee bi ñu ñëwee ñoom mille trois. treize mille algo la ñuy am. mille 13500 te 13495 sax moo leen correspondre ñun ñoo leen tegal 5 pesos. muy wekkeet yi nga xam ne mooy des noonu. fan la 5 pesos yooyu jógee. Mhm. et pour ñëpp xam ne rek eh, ñun lépp lu ñuy def. dañ ciy def maanaam ndax dañ ciy xalaat ëllëg. ñun suñu àdduna nekkul tey jii. wala nekkul lu kii lii. Mhm. Eh, dañuy xalaat ne ëllëg. même bu dul ñun di suñu sët ak suñuy doom. ndax maanaam toog ba ñu naan sa doom sa papa. moo fi defoon lii wala moo fi defoon fii. nit mën na maa sant dara mënuma ko ma bañ waaye man du ma faltaan te du ma saaga nit te du ma jël benn alalu joomu jàmbur te amul kenn koo xam ne mën nga taxaw tey ji ma yaa ma yoral waxuma la yaa kii de yaa ma dërëm yaa ma mhm. yoral dërëm mhm. donc sant naa yàlla alhamdulilah donc li nga xamante moom laay def aussi mooy bu xaalis ñëwee par exemple supposons bu ñu ne euh, kenn ku nekk eh, boo diviser ñi nga xamante moo ñoo war a jot xaalis bi mhm. kenn ku nekk war naa jot vingt mille et quatorze pesos wala vingt mille vingt trois pesos. Mhm. léegi yow quarante personnes nga bëgg génnaat dem ci kiosque yi. supermercado di cambio ay weccet. Mhm. dama leen di naan exactement yéen kenn ku nekk lii moo la correspondre. Mhm. waaye vingt trois pesos yi wala quatorze pesos yi de tegu ci lii dinañ ko jël teg ko fële garde ko. kenn ku nekk booy transféré nga mën a transféré exact kenn ku nekk nga def ko chiffre rond. ñoom ñëpp ñu dëggandoo ko mais 14 pesos yooyu wala loolu du des. duñ ko mhm. kii dañ koy bind ne total bi moo des. léegi bu ëllëgee ñeneen ñu envoyé leen comme genre ñooñu ak ñeneen ñoo. xamante ne amoon nañ ay 16000 yoo xamante ne dañ leen a. tegal ku nekk ay 100 et quelques mm. dañoo jël nag ci wéccet yooyu. daal di leen tegal pour ñu am chiffre complété leen ndeysaan c'est-à-dire dese mhm. ñoon la ñee di complété wax nga dëgg loolu am naa ci benn bokkataal bu ma ko wax ndeysaan yaakaar naa da nga ko xam sax ku woon ne ma xam naa ne moom li ma waroon a jot dafa gàtt mais dañ koo taqale ay dix pesos mooy li nga bëgg expliquer rek c'est vrai c'est vrai exactement loolu am na solo xam naa ni ndeysaan mbokk yi dafa mel ni xam naa na loolu xam naa dinaa ci ñëw insha xam naa ñu ngi koy taxamti ko bu baax a baax mbokk yi dinañ fàttali rek ci passage yi nga xamante ne ki nii mi ngi toll ci précio boo xam ne am na solo loolu yaakaar naa te xewle na numéro bi muy 11 si Moussa mu mel ni gis nañu def benn idée bu am solo boo xam ni ndeysaan ambition la ak gëm-gëm loo xam bi que ni ñun gis nañ ko mu nekk loo xam bi que ni yaa ngi ñi ñaa mu sotti muy téer yi nga xamante ne bi que ni yaa ngi leen créé créé benn groupe yaakaar naa def ci benn appel boo xam ne ñu ñëpp ñu ngi koy bàyyi xel ambition boobu nan la la dikkee maanaam yow yow da nga toog sa xel ni comme que ay sénégalais ñi ngi fi ta ñaare dañu fi ñëwaat ak seen métier danga dem créer maam gëstu ji projet boobu yow na nan la ñëwee gis bopp yow si Moussa Walla laa bëgg nga leeral ma ko tuuti. waaw eh, wax dëgg yàlla. Mm-hmm. Eh, xam naa jaaxal maa bett. xam naa ne jaaxal naa la tey moom. non dëgg maa bett ci kii boobu parce que lan moo xew. waaw eh, ma di. peut-être si dugg ñaa ci group yi lancé. ndeysaan mais lancé ne kuy tailleur et cetera dugal leen ci group ndeysaan waxtaan ak ñoom ci li nga xamante mooy yéene bu ñu am. ndeysaan mais faralu ma wax dëgg na yàlla di wax ci mbir tànk dem egguma ci. résultat yi dëgg la mais nag comme yéene la yéene la bu leen ah. yaakaar ne <laughs> te aussi euh, boo gisee sax bëgguma cee wax parce que bëgguma maanaam nit. gis ci boppam ëllëg maanaam naan Moustapha moo non mënul ñàkk waxtaan la xam nga li xew ëllëg yàlla moo ko dogal yow li nga mën mooy sabab lu jàpp leen ne comme yéene la bu ma yéene loo yéene la wér na ni ma ko yéene tey yàlla ko yàlla sotal ko yéene ñeneen ñi am mhm. naa duñ sax continuer ci côté boobu mhm. duñu duñu non fa nga wasal lan moo xew mhm. lépp loo gis ci àdduna dafa da ngay am fooy basé wu maanaam del roy li baax euh, mbirub tailleur yi dañ koo gis par exemple ci lu mel ni Barcelone. Mhm. Euh, ak group sénégal yi nga xamante ñoo nekkoon ñu tuddee ko Top Manta tey. Mhm. Euh, dañoo nekkoon di jaay ci mbed mi. ñu mhm. leen di bundu xotal ñu dem ba gis ne ñoom mënoon nañoo def leneen. organiser wu ba créer loolu. donc maanaam fii tey dañoo commencé ci tailleur yi. mais mënoon nañoo commencé ci leneen. Euh, chambre que chauffeur yi. exactement exactement. Euh, donc lan moo xew. Mhm. loolu comme bi ma gisee ne aussi am na ñoo xamante ne am nañu ay profession mhm. te mën nañoo def liggéey bu am solo. Mhm. donc mais lan moo teer. ñun ñu mën a organiser wu créer ay coopérative yow ak sa groupe ci métier bi nga xamante moom ngeen mën. ngeen wóolante seen biir. am respect seen biir. jéem a jàngaat dara ci Argentine ci dëkk bi. ndax aussi nit ki da ngay former sa nga bëri sa xam-xam fële Sénégal mais boo ñëwee ci dëkk bi. sa xam-xam dolli ci. Mm-hmm. defal la tout pour maanaam xam-xam boobu nga amoon fale mun a accordé ak li nga xamante mooy ni waa dëkk bi di liggéey su ko defee nga xool sa yeneen mbokk yi sa yeneen xarit yi nga xamante ñu ngi fi nga mën a toog ñoom liggéey dafa am solo ñun waroon nañoo am ay groupe groupe yoo xam ne kenn ku nekk ci li nga xamante ne ba nga mën a nga def soxla non loolu moom dëgguma dafa am solo li nga xam ne dafa am solo si ma maanaam sénégalais yi eh, maanaam ni focalisu ci mbedd mi rek doo dugg ci eh, dëkk boo xamante ne da ngay bëgg lépp nekk saas saas maanaam kut ko kut tey xaalis laa bëgg naa am cent mille mu jël ma ko amee baax na te aussi bëgguma image bi nga xamante moom la ñuy jox ci yenn côté yi nekk lu continuer mm-hmm. parce que benn image bi nga xamante ne tey moom lañ représenté si bien que mm-hmm. mën nañoo sant yàlla ndax ba léegi ñu ngi continuer di am image bu positif mm-hmm. ñëpp xam ne ay liggéeykat lañ et cetera mais ci dernière année yi dañoo gis ne bu fu ñu bu ñu génnee télé parce que police yi la ñuy xeexal wala ay leneen et cetera. ak mhm. mbedd yi bu ñu waxee ci Sénégal daal dañoo ne marchand ambulant. marchand ambulant. dem nañ sax ba yeneen africain wala yeneen immigré yi jaay sax kenn waxatu leen c'est-à-dire sénégalais daal comme mooy mantere mooy jaaykatu mhm. te fekk na sénégalais yu bëri am nañ seen i métier yoo xam ne mën nañ koo def ci ëpp mbedd mi foofu mu am ñoo xam ne ñu ngi ci waaye nag bu fekkee ne nag ñi nekk ci mbedd mi mhm. ñi nga xamante ne am nañ possibilité defi leneen profito ci occasion boobu pour dem defi leneen. Mhm. mbed mi dina gën a wàññeeku. te dina ëpp jàmm mais bu fekkee ne ñun ñëpp dañoo bëgg a ñëw topp ci kii focaliser wu. Mhm. léegi di jànkonteel jafe-jafe yi ak li nekk ci kii bi te chaque jour suñuy rakk yi di gën di ñëw aussi problème yi. day gën a donc moo waral nag ñuy mhm. jéeme foofu. jéem boobu nag aussi li ko gën a waral nag aussi mooy pandémie bi moo ñu gën a choqué. pandémie bi daf ñoo gën a wan ne dafa gàllankoor lay dafa gàllankoor te lii oh. ñu ngi souffrir peut-être eh, réalité bi mais conséquences yi mën nañoo gën a garaaw oh. mais donc loo gis da ngay ñaan nag mu gën mu bañ a maanaam mu gën a oyof mm-hmm. pour mu gën a oyof nag foofu ñu commencé créative créativité boobu nag moo ñu yóbbu ci lii. am na solo. bi d' abord mooy jéem fexe pour nit ñi former wu. Mhm. mais aussi pour nit ñi kenn ku nekk jéema dem ci beneen bànqaas ci liggéey boo xam ne moo gën a assuré dëkk boo xamante ne tey ñi mën a jaay ba léegi bëreeguñu dëkk boo xamante ne économie bi day commencé daanu. dëkk boo xamante ne argentin yi dañoo commencé ñàkk seen liggéey démb rek gis ngeen informé bi nga xamante ne moo génn ñu leen di naan eh, maanaam plus de 13 pour cent ñi nga xamante ne mooy argentin ñu ngi ci chômage oh. c'est-à-dire plus de 700000 xaw ma 70000 wala 700000 personnes yoo xamante ne oh. ñàkk nañ seen liggéey ci dernier 3 mois yi oh. donc yow ki nga xamante ne day jaay day dund ci jaay bu fekkee ne ñi nga xamante ñoo ko waroon a jënd ñoom dañuy ñàkk seen liggéey seen économie yor seen bor yaay xalaat ne ëllëg war naa xool leneen loo xam ne mën naa koo booleek sama liggéey bi donc loolu mooy tax aussi maanaam ñu war a mën a def le tout pour góorgóorlu ñuy tailleur yi defi leneen. defi leneen maçon yi jéem a xool feneen. agriculteurs yi am na ñi nga xam ne ay ay menuisier bois lañ. menuisier bois loolu yi. fu nekk Argentine am na opportunité yoo xam ne kenn ku nekk mën nga fëgg buntu ñu ubbil la ko nga continuer ci ñu formé la ba pare nga am ci li nga xamante ne moom la kii booy yi bu ñëwee ñi yor seen télé yi bu ñëwee xamuñ woon lii donc dañoo focaliser wu ci lii di ko décharger di ci góorgóorlu ba tey ñu ngi yor seen télé seen moyen ñi nga xamante ñoo yor seen boutique et cetera la même chose donc képp nekk ci mbedd mi jàpp comme d'une manière provisoire mm-hmm. c'est-à-dire dama ci nekk gum di ci daan sama xoole mais jàpp ko pour tàmbali mais bu ko yaakaar bul yaakaar ne ci laay nekk yàlla day dogal nag destin bi def na nga nekk ci te xamoo kan nga ciy jóg c'est-à-dire danga ciy nekk di wër pour maanaam dépasser foofu mais tamit day métti pour nga mm-hmm. génn ci mm-hmm. loolu des fois destin lay doon mm-hmm. donc ñii lu ma leen yéene la mais aussi yéene bi aussi nekkul ne eh, dañ leen koy wax ndax am na benn projet boo xamante ne eh, keroog rek ndeysaan amorcé nañ ko ci benn province du ma sax tudd province bi mais li may leeral Sénégalais yi mooy ne bu ñuy xaar mukk xaalis effective c'est-à-dire bu xaar nit dafa ñëw yëkkati xaalis jox la yëkkati xaalis am jox la ne yow li loolu loolu amul loolu 10 000 pesos yu IFE bii la rek wala yeneen kii ndax aussi kenn ñaanu ko woon yàlla sax loolu foofu rek lay am mais nit boo bëggee liggéey carrément da bind sa projet bind sa projet ne ma yow damaa bëgg nga orienté ma ci lii. Mhm. naka laa mën a def pour am lieu boo xamante ne man dinaa fa mën a toog. Mhm. naka laa mën a def pour am matériel boo xam ne dinaa ko mën a utiliser pour def sama liggéey ak sama profession. Mhm. ak ban destination laa bëgg ci sama profession bii. cest sax man bëgg naa di ci def comme genre école bu ndaw boo xam ne damay xel di former ay góor ak ay jigéen ñoo xam ne dañoo bëgg a def ay tailleur. ndax man aussi dinaa jël sama responsabilité ma dem former wu ji même bu dee 3 mois ci école institution. boo xam ne kii. Mhm. su ko defee organisation yi dañ lay jàppale ci. ñu formé la jàngalaat la woon la yoon mi mhm. jàppale la ci ay lugaar mais aussi jàppale la pour nga am accès ci financement financement partout ñoo xoolal kii bi sinon que nga ne machine bii laa soxla ñu ne am nii laa bëgg def pour maanaam jot ci crédit bii ñu ne lii fii laa bëgg a jaar ñu woon la yoon bi loolu mhm. mooy projet mais projet nekkul ne kaay xaalis bi jóge fële ci kaw yàlla yàlla taw ñu yëkkati un million bi ne diw wala ñu ne ñi yaakaar ne peut-être yaakaar ne peut-être Moustapha Wa dañ koy jox un million pour mu séddale ko tey <laughs> du projet mm-hmm. projet des fois projet day am ne OIM par exemple day am ay projet mm-hmm. wala ak Nour et cetera projet yoo xam ne dañu naan eh, ñun euh, am nañ par exemple on fond de tel. Mhm. mais yow boo amul benn projet duñ la ko jox. du sotti boo demee ni may leen ma ko duñ la ko jox. damaa bëgg dee duñ la ko jox. dañ lay naan lii defal ma lii ak lii ñan ñoo koy jël en charge ak nan ñoo koy ngeen toog waxtaan ci lu leer ngeen toog. firmaar mu leer nañi. seen projet ba pare nag mu am seguimiento c'est-à-dire mu am suivi. projet nekkul ne da ngay ñëw rek commencer rek fàtte nga maanaam nga bàyyi mu daanu. maanaam da am. intention di gën di jëm kanam ci loolu. te ñi lay jàppale aussi loolu moo leen di gën a kii bo bu ñu la xoolee rek bu ñu waxee ak yow rek dinañ xam ne yow am nga intention continuer mmh, mmh. li may bañ nag mooy. Mmh. Eh, peut-être keroog eh, comme sa genre yu mel ni yow nga xam ne peut-être du ñu ay tailleur. ñu ñëw tey rek ne waa dañoo. tey projet ay tailleur la ñu dugg. léegi ëllëg ñu ne leen waa mm-hmm. day comme am ngeen projet bi continuer mm-hmm. leen ci lii mm-hmm. léegi ëllëg nag ñu ne ah non lii di xaaral ñu def ko comme seconde kii rek samedi ak dimanche ñu su ko defee du ñu farataal li nga xamante ne moo jëm ci liggéey boobu te loolu nekkul lépp exactement li nga xamante moo ko tax a jóg professionnel yi moom moom bëgg ñu gën a professionnaliser jàpp ne professionnel du ma sax ba daw man tey moom yaakaar naa mos fa ci tala ñu ngi focaliser wu laajal bi rek ndax yaa ngi imaginer benn jour ñu xëy suñu jigéen ñi nga xam ne ñu ngi fi nekk tamit ñu jaay añ ndax yaa ngi imaginer ñu xëy ba am ay restaurant ay sénégalaises ñu am ay restaurant sénégalais sénégalais di ñu ay restaurant ci bi xam nga projet maanaam nekkul eh, bëgguma sax maanaam nit ñi di yaakaar ne waaw dañoo nekk di sax di di xalaat ay mais eh, billaahi wallaahi man damay damay toog ci kenn ku ne xam na du ma tailleur sama yoon nekku ci man bu ñu demoon tey defar naa projet bi kii naa ko defar naa lépp mhm. bind naa lépp jël naa sama temps mhm. waxtaan naa ak fi ma ko war a présenté waaw ba de ba lan moo des imprimer dem jox leen ñoom ñu réviser xool léegi ba pare buñ xoolee. Mhm. ñoom dañuy xam xaar ba xam ne am nañ fond boo xam ne yaa bëgg soxla nañ projet buñ ko kii nga xam ne yow déjà defar nga sa projet. ndax or institution yi comme ni ma leen ko waxee sànq dañuy am fond. Mhm. mais du ñu xam fu ñu koy yóbbu des fois. Mhm. parce que du am benn projet bu taxaw dañuy commencé naan ku am projet wala ku def. ni yegsi mais bu fekkee ne fekk nañ yow nga waxtaan xool benn affaire ba ne yéen kat saa yoo leen amee fond jagleel leen ma ko ñii. loolu moo leen gënal ñoom dañoo ne voilà loolu la ñuy wër. Uh-huh. donc boo ko defaree teg commencé xalaat ci beneen. Uh-huh. loolu ngay wax noonu bokk na ci li nga xamante ne aussi ñu ngi koy xalaat. cest à jigéen yi. Uh-huh. ak góor ñi parce que maanaam togg maanaam. góor ak jigéen koy def loolu moom. góor ñi ak jigéen ñi nga xamante ne bëgg nañoo yëngu ci wàllu cuisine pourquoi pas euh, euh, un bon jour. et mënuñoo doon parce que lan moo xew pa lan moo xew nañu dépassé wàllu xaalis bi et maanaam bu ñuy wutati liggéey wala ñuy def ay projet mm-hmm. man boobu personnellement du ma sukkandiku seulement ci wàllu xaalis beeg économie si c' est vrai c' très important kenn ku mm-hmm. nekk da nga bëgg am alal am mm-hmm. loo xamante ne moom teraanga exactement mais dafa am benn espace loo xamante ne lu am solo la muy le point culturel c'est-à-dire restaurant bu fii nekkul restaurant buy jox nit ñi ñuy lekk kese wala maanaam buy génne xaalis. Mm-hmm. restaurant wu Sénégal fii culture la. représentation la boo xamante ne day wane benn photographie Sénégal la day mm-hmm. wane suñu culture def ñuy gën a indil benn vision boo xamante ne. argentin dañ koy gis mm-hmm. donc loolu. mooy li nga xamante ne moo ci gën a am sens. Mhm. donc maanaam nit ñi mën a dem liggéey foofu. ay nit mhm. mën a dem di ci am seen i teraanga. mais aussi mën a représenter Sénégal fii. macha allah muy yi. Mhm. ñeneen ñi nga xamante ne moom ñoom dañoo soxla aussi. xam naka lañ mën a def pour wuti liggéey même bu fekkee ne du doon lu mel ni coopération. war nañoo am groupe sénégalais yoo xamante ne. même bu dee dix wala quinze sénégalais. jàng nañ te am nañ yéene bi. ñu won leen naka la ñuy rédiger benn CV. Uh-huh. nga xam ne tey fooy wuti liggéey da ngay defar benn CV. Uh-huh. tey bu Moustapha bëggee defaral CV sans Sénégalais day sonn. wala uh-huh. des fois temps bi du ko may. bu ñu amee dix sénégalais yoo xamante ne ils sont préparés ñu ne leen Argentine kat CV yi nii lañ koy defaree. Uh-huh. nga xam ne yow yor naa dix numéro yoo xam ne saa yu ma soxlaay CV ma en woo ah, diw diw defaral ma CV ma imprimer ko dem ma wuti liggéey loolu daf ñuy gën a facilité. Uh-huh. leneen li aussi mooy bu ñu demoon ba mun a recenser yeneen page yi nga xamante ne nit ñi mën nañ cee wuti liggéey. booy wut liggéey fan ngay dem fan ngay connecté wu fan moom la ñuy am offerte yoo xamante mën nga cee oh, loolu yëpp ay espace la yoo xam ne ñun ñii ci suñu bopp mën nañ oh. koy commencé def parce que le moment est temps que ñun dañoo war a jóg nag jàng nag tuuti non changé changé mm-hmm. totalement catégoriquement parce que maanaam lii ñuy dund dafa dépassé mm-hmm. te ñun waruñoo dëkk en arrière maanaam nit maanaam waroo di poursuivre xaalis bi kese poursuivre capacitation jàngal moment bi nekk na moment boo xam ne tey lépp looy def da nga am email lépp looy def ci sa email lañ la koy envoyé lépp looy def tey ci sa compte bancaire lañ la koy kii donc lépp a changé tey jii ci xaalis bii ñu jóge ci xaalis bii ñu jógee <laughs> xam na ci dara de yi de mm-hmm. xaalis day ñëw ba fii sax ngay am jafe-jafe ngir ñu jot ci mm-hmm. donc waxatuma la nag xaalis boo xam ne mu nga Brésil ah, comme xaalis mooy ñëw fii ma am jafe-jafe pour jox ko keneen ah. donc xaalis boo xam ne dafa war a jóge fële ñëw fii donc loolu yëpp lan moo ko war parce que des fois ñun dañuy bëgg génn ci système bi duñu bëgg am email duñu bëgg am compte wala buñ ko amee duñ ko fonk seulement dañ koy soxla benn yoon ni ah amoon naa ko mais coupé nañ ko wala tëj nañ ko mm-hmm. donc loolu yëpp faw ñu commencé nag jéem a geestu ci lu jëm ci bureaucratie mm-hmm. nekkul ne da ngay jàng ba nag universitaire moo koy tax a def non non bi rek engagement la am am te même boo amul niveau bi jàng du weesu mukk dem leen jàngi espagnol mhm. dem leen formé wu ci yeneen affaires yi nga xamante ne mhm. intéressé na leen ndax billaay def leen di jëriñ du leen wàññi moom seen professeur bi nekku fi mais si dugal naa benn kii beneen prof boo xamante ne mu ngi jox leen dafa nekk kii si dugal naa ko ci groupe yi ah. si si si si si non ci ci groupe sénégalais en Argentine ah ok ok exact tey jii lañ commencé am na jigéen yu bëri ci ciy inscrire. ma maa ngi def émission. ok suñu ko da am benn question. waaw monsieur Ba xam naa fi nga toll am na solo. yow mhm. Moustapha. Eh, dañuy dellu rek xam naa ci ginnaaw tuuti ci benn émission boo xam ni tontu nañ ci say question mhm. ki la tontu woon mooy moo fa représenté woon état nga laajoon ko waaye tudd na loo xam ni itam soxal na ñi nga xam dañu nekk Argentine nee na euh, lii xew mbas mi moo tere kon ba léegi nii. Argentine am na consul honoraire ndax am na ñaar ñoo xam ni taxaw nañu demandé loolu ci jot nañ daañu leen ko nangul daañu ñëw xool kan lañu ciy tànn ci biir loolu nag bi mu jógee gis nañ ñoo xam ni dañu ni warul doon loo xam ni dañ koy xuumtoo maanaam kenn duñu tànnal ki nga xam ne mooy nekk suñu consul honoraire loolu bëgg naa ñu dellu ci naka la demee ak consul honoraire ci nan la ñu koy tànnee ci naka lay nekkee. Mhm. yàggul it benn conseil boo xam ni jàll na Sénégal. njiitum réew mi wax na ni lañu daal di def le tout pour solutionner problème Argentine maanaam kon mu mel ni am na taxawee boo xam ne état donc jóg na pour gën ko taxawe waat Argentine bi loolu amee ndax yéen ñi nga xam ne yéen fi représentant woo nañ leen wax leen taxawaay yooyu nga xam ne jóg nañu pour def ko yan taxawaay la bu fekkee woowuñu leen it ñàkkul ambassade la ñuy woo moom mu woo leen loolu ndax am na. waaw jërëjëf Gora eh, d' abord ci li nga xamante ne moo jëm ci conseil honoraire eh, waaw. su tawee eh, Sénégal non non c' est que c' est c' drôle mais c' triste. Eh, parce que sénégalais. malheureusement parce que man bëgguma di ne di généraliser comportement bu sénégalais wala benn nationalité. wala benn groupe. ndax yemuñu mais des fois dañuy tam benn affaire ba bëgg koo naturaliser. mais li ma bëgg a wax sax damay corriger sama bopp damay naan la grande partie. Mhm. ci ay sénégalais yu bëri. Mhm. dañuy revendiquer benn affaire ba mu bëgg a ñëw léegi ñu def ko nii. sénégalais bu fi jël cadeau. ci média yi ci fenn fu nekk ne dañ fay war a am consul honoraire dañ fay war a am ambassade dañ fay war a am consul et uh-huh. waaye bu ñu demee ba ne waaw consul lañ fi kii rek ñu ne non diw du doon diw ñun ñoo koy tànn waa fan lañ mës a gis ci àdduna ñu ne sénégalais yi waa tan leen consul ba même bu dee consul honoraire ñoom xanaa ñu nekk ñoom ne ñoom ne te même bu dee mille sénégalais yi nekk ci benn gox ñu ne nañ fal benn kii fan lañ mës a gis ñu ne am leen boîte yi élire leen benn consul honoraire. tànn leen benn consulaire. motul am. Mhm. lenn mën na am kenn koo xamante ne ñu ngi gis ñu muy def dara wax dëgg neex yàlla am Pastef am possibilité bi ak responsabilité bi. Mhm. ñu gis liggéeyam ñu ne ah diwkat doy nañu. et cetera te lool sax nekkul ne ñoom ñooy fal parce que décision bi feneen lay jóge sénégalais bu ñu demoon sax ci ay urne sax maanaam tànn seen benn kii ne Abdoulaye yow la ñuy wote pour nga doon seen kii ñu envoyé ko nekkul ne dañ autorité day jàll parce que lan moo xew Abdoulaye consul honoraire consul la boo xamante ne nekkul ne dafa am euh, salaire par exemple volontaire laal la da nga koy bëgg hmm. mais bëgg taxu koo doon parce que lan moo tax yow faw nga am disponibilité bi faw nga am aussi capacité mais faw nga am les moyens. Hmm. parce que yow faw nga am lugaar boo xamante ne fa ngay teg sa biro d'abord hmm. mais yow faw nga am jàng parce que lu ambassade bi ku bëgg a représenter lu mel ni ab dëkk hmm. faw nga dëgg làkk ambassade faw nga dëgg làkk bi ah dina baax aussi nga mën koo bind parce que tey boo bëggee def benn rapport wala nga bëgg dem jéem a créer relation entre dëkk bi ak sa dëkk bëgg a créer ay initiative ak ay kii et cetera dafa baax nga mën français bi mën a bind mën langue bi nga xamante mooy langue base dëkk bi nga xamante fa nga nekk dafa am solo mais aussi ñu xam la ci dëkk ba def ci am solo xam ci dëkk bi nag nekkul comme ni ñuy xamee nit. Hmm. comme ne waaw xam nañ Abdoulaye wala xam nañ Moustapha wala hmm. xam nañ diw déedéet xam dafa dem ci institution yeneen institution yi ak autorité yu mag yi aussi am responsabilité ak respect bi ñu la jox. Hmm. loolu daf cee am solo te ñi nga xamante ne ñoom ñooy présenté wu des fois. dañ koy am. Mhm. te même buñ ko amut aussi nekk nañ nit ñoo xamante ne même bu dee ambassade ba. Mhm. balaa muy joxe décision. Mhm. day gestu ba xam ki kan la. ki kan la d'abord primero. kii lu mu xam. kii lan mooy cursus lan mooy CV ba pare dak door a envoyé Sénégal. waa Sénégal aussi gestu ba pare ne ko ok. te bu yemul foofu de. bu loolu yëpp pare. Hmm. ba sa ambassade ne ah kii de waaw xam naa ne diw la. Hmm. joxe Sénégal Sénégal ne waaw ok c'est bien. Hmm. Argentine la ñuy jox. moom mi nga xam ne dëkk Argentine moom waaw moom noonu lay gëstu ba xam ne yow mii kat si am nga responsabilité yow pour fonctionner ci li nga xamante ne moom. nekkul n'importe qui parce que lan moo kii xaw. autorité diplomatique dañoo nekk autorité yoo xamante ne dañoo am euh, euh, dañoo am immunité. si doo am salaire mais di nga am immunité diplomatique. Hmm. c'est-à-dire yow tey looy def des fois duñ la càmbar après comme comme ni ñu mën a càmbaree kii et cetera. Hmm. sa kër maanaam hmm. mënuñ cee dugge noonu ak tout cela mais moo tax nag kooku ku responsable la war a doon ndax am na ñoo xam ne dañ koy def pour profito ci di ci def loo xam ne nag su dul noonu la donc responsabilité boobu dafa am solo bu benn sénégalais yaakaar ne dañ lay soxla muy man mii muy keneen pour ngay tànn sa kii képp ku mën a doon li nga war a ñaan mooy ak ku mën a doon ci àdduna na doon koo xam ne mbir mi dina ko yitteel te dina góorgóorlu. Mhm. sénégalais yëpp li ma ci jaaxal sax sénégalais yu bëri mooy bu ñu naan consul dañoo yaakaar ne consul bi bu faloo ëllëg. dafa war bu ñu nee waas on sa ñu ngi xeex moom. mu ñëw taxaw ne leen non bu leen dóorati sénégalais déedéet. bu leen bañ conseil bi ëllëg mukk bu fekkee ne am na bu leen ko bañ wala bu leen ko saaga ndax daa ñëwut ci kii am na loo xamante ne ambassade yi waa mais mais mais mais Bolivie Bolivie yi dañuy jaay ak yéen ci on bi ci mbedd mi mais consulat yi muy foofu mosoo leen gis consul bi fii kay Sakar mi ngi fii voilà bu fekkoon ne sénégalais nag ba nu saaga nañ ko ndey ngeen baal ma ci ngeen baal ma ci waxin wi donc ci waxin wi mm-hmm. donc maanaam ñun faw aussi ñuy jéem xool mm-hmm. exactement yan rôle ak yan possi yan position la yenn autorités yi di taxaw am na foo xam ne autorités yi ñu ngi fay taxaw des fois ñun duñ ko yëg mm-hmm. des fois ñun duñ ko yëg des fois ñu bëri dañoo yaakaar ne ambassade bi du yëg seen problème mu yi fii nekk yi yëpp ñu nekk ci dossier yi ambassade yi dañuy envoyé seen demande justice naaf ka affaire bi di toll fu muy kii et mhm. nekkul na dañuy jóg di leen publier ne waaw lii lañ def wala lii lañ wax mais mhm. dañuy poursuivre question judiciaire yi mhm. dafa am benn convention boo xamante ni c'est international muy convention de Vienne sénégalais yu ñu jàpp dañoo am obligation autorité argentine informer Cancillería. Mhm. Cancillería informer suñu ambassade. Mhm. comme suñu ambassade nekkul fii. sa mhm. c'est obligatoire parce que convention internationale donc ambassade bi bu ko yëgee lu muy def nekkul ne day gën ëllëg ne Moustapha lii laa def wala fii laa jaar wala mais mu ngi saytu naka la procédure bi di dox et li ñu mën a gën di wax. ak ni ñuy waxee man mii. ambassade ba mënu ko même man am na sax nu may waxee man. Mhm. des fois boo leen di duggee ci sama côté professionnel damay génn leen non man comme émigré laay wax comme sénégalais. donc loolu nag lu raw lool la ambassadeur yi am. Mhm, mhm. donc bu leen yaakaar na des fois dañuy toog si dañ leen di xel di soñ à chaque fois ngir ñu gën a góorgóorlu ci yenn thèmes yi. gën a eh, defaraat yenn. kii yenn toogaay yi rek ci gàttal yenn toogaay yi mais nag. li ñuy def des fois. wax mhm. dëgg na xel ñun ñi dañ koy gis. ndax mhm. dañuy gis li nga xamante ne mooy résultat yi des fois gis effort yi gis doxin yi. te Gora aussi laal na ci tuuti bu mu ne waa Sénégal Gora yaakaar naa da nga ne wax nañ ne ci conseil des ministres. Mhm. président de la république ne nañ def le tout. pour taxaw. sénégalais yi nga xamante ñoo nekk. Mhm. au niveau du euh, au niveau de l' Argentine ci li nga xamante moo jëm ci seen régularisation migratoire. Mhm. xam nga loolu bu ñu demee ba mu génnee ci tu ci gémmañu président de la république parce que xam na ne. Mhm. Eh, discussion am na diggante autorité argentine ak autorité sénégal ñu ñu ciy sant yàlla bu baax di sant aussi autorité argentine ci seen ouverture gouvernement bi en principal. en particulier ndax si ñoom ñu ngi maintenir en contact direct ak suñu ambassade ak suñuy autorité en général suñu mhm. autorité yi ambassade bi moo leen représenté pour mhm. lan pour maanaam xool naka lañ mën a saytoo pour sénégal yi nekk fii mën a am seen régularisation migratoire mhm. te ñu ngi ciy liggéey sa fait des mois lay wax sax du doon des semaines liggéey boobu ñaari réew yi am na nañu am nañu contact waaw boobu am na nañu contact parce que ñu ngi kii ñu ngi jokkoo ñu ngi jokkoo loolu moom loolu yéen gis ngeen eh, eh, président de la république. bu ñëwee fii eh, président bu fii recevoir nañ ko. Mhm, waa ministère des affaires étrangères dañuy recevoir ambassade bi. Mhm. ambassade bi ñëw na fi des maintes reprises yoo leen mhm. yëg ak yoo leen yëgut. di dox ay mbir yoo xamante ne diggante Sénégal la ak Argentine. donc euh, si bien que si c'est vrai que ambassade bi bu mu ñëwee ci loo xamante ne maanaam temps may na ko day présenté wu def réunion ak sénégalais yi même bu dul assemblée général nekk ñoo xamante ne peut-être association eh, nu ñu koy waxati bureau association bi. mais am na cas yoo xam ne day ñëw ngir loo xamante ne liggéeyam diplomatique la ñëw lijjante ko daal di doxaat dem sa dem yoonam. donc loolu c'est très important. Mm-hmm. au delà de élection présidentielle yi nga xamante ne. Sénégal. Mm-hmm. Mm-hmm. jéem na def lu tout pour ñun ñu mën a voter fii sans ñu am représentation diplomatique. ci biir mm-hmm. dëkk bi. à part loolu aussi eh, na ngeen xam ne eh, le ministre des affaires étrangères président bi sax moo fi waroon na ñëw mais ci G20 bi Argentine organisé woon. ministère des affaires étrangères actuellement. Mhm. et moo nekkoon fi représenté président de la république. donc waxtaan yooyu. Mhm. nekkatul ne Sénégal ak Argentine xamante mhm. donc tey dafa gën a fes ci bu ñu demee bay wax waxu consul honoraire. wala ñuy dem ba wax am ne gouvernement bu Argentine ak bu Sénégal ñu ngiy jokkoo pour mën a jàpp ci li nga xamante moo jëm ci régularisation migratoire yu sénégal yi. Gora yaakaar naa am na beneen question boo xamante ne def nga ma ko su ma koy. Mhm. bala eh, ci diggante boobu nga rappelé wu mbokk yi ñi ngi saa ñi ngi xam naa ni wax dëgg yàlla ñi teewlu bari nañ loolu fi mu toll nii yoo xam ne dinaa ci ñëw ak yow parce que dafa am ay mbokki Sénégal yoo xam ni du polémique nag maanaam euh, bataaxal bi nga dugal fan yi muy audio bi nga lancé fan yi di bi nga xam ne dangaa bëgg Sénégal yi nga xam ne ñoo nekk ci yenn gox yi ñoo boobu maanaam audio boobu fi nga ko dugal ndax am nga ndax gis nga information bi ni mu teelee tasaaraawu maanaam ni mu siiwee ndax information bi fi ñu ko dugal fa nga daan dugal information yu gis bii dafa daj dafa daf non maanaam loolu am information bi mhm. boo gisee su ma jumalee tax wax sax ñu yi mhm. maanaam fi doon dugal information bi fa nga ko dugal wala boog information bi néew Sénégal yi dama gis ni leen intéressé rek la ñu bëgg a dégg wala que ça passe damaa gis ni bii maanaam dafa jot mboolem ci assemblée ba wax dañu ko dugal ak bi ko réew mi ba jotee mënut 30 minutes loolu nan nan ko fa yow. waaw balaa may ñëw ci sa kii ma terminer question. ak Gora Gora. Mhm. Eh, waaw maay rappelé wu léegi ne maanaam affaire consul honoraire. honoraire bi waaw. c' est vrai que ambassadeur mu ngi fi waroon na ñëw le 22 mars. ambassade bu Brésil. bu Brésil mu waroon ñëw pour rencontrer ñaari candidats yi nga xamante ñoo présenté wu pour doon consul honoraire. Hmm. yàlla may leen di ñaan rek. patiente tuuti. ñu patiente te am aussi yéena na. suñu mhm. biir ma leen di aviser. Mhm. du ma candidat parce que ñu bëri. <laughs> awa ñëpp de coono lu bëree bu bëree ba bëri ñu bëri. parce que dañoo yaakaar peut être candidat la waaw lu tax candidat. non non du ma te ñëw di ma seet si waaye nañ yéen ñi nga xamante ne ñooy. candidat bëgg nañ candidat te xam ne kenn du xëccoo loo xamante ne mënoo ko wala boo ko xëccoo aussi maanaam yow lay sonal. ëllëg d' abord ëllëg. ëllëg c'est donc ñi nga xamante ñooy ñooy ay candidat même bu fekkee ne tey mënuma ne xam nañ leen ñëpp waaye au moins. est-ce que am yow am na kenn koo xamante ne xam naa ko te mën na ko. am nga yaakaar mën na ko yow. parce que am na xam-xam bi te am na engagement te mu ngi liggéey xam nga ñun dañoo yaakaar ne rek maanaam. Eh, Eh, xeex kii ñu dem wala maanaam. non yooyu ñu yëkkati xaalis joxe wala maanaam di rey ak sénégalais mooy. Mm-hmm. liggéey ndax mën nga ko exclusivité ñu xamante ko. am na ñoo xamante ne déedéet am na ñoo xamante ne ñu ngi mm-hmm. liggéey. Mm-hmm. ngir valoriser culture Sénégal fii ci dëkk bi. si ngir ñu gën a dëggëral Sénégal ci institution yoo xamante ne tey ñun sax xalaatuñu foofu. loolu siwul moom te loolu moom moo ëpp solo liggéey sax yi ñuy def parce que lan moo xew ñun buñ ñu reconnaître institutionnellement buñ ñu xamee Sénégal ci valeur ci yenn valeur culturelle et traditionnelle yeeg yenn xam-xam yeeg yeneen kii yi muy mhm. affaire universitaire ak affaire culturelle et cetera mhm. ci lañ ñuy gën a jox gëdd ñun ci suñu biir Mm-hmm. ci dëkk bi donc aussi loolu ñu ciy bàyyi xel bu baax. Mm-hmm. am solidarité. bu am solo te muñ te xam ne. maanaam ay conseils mbooloo mooy doole si nit du am loo xam ne mérité wu ko. wala bu ko amee aussi da koy sonal ëllëg. donc képp ku moo doon nañ bàyyi polémique bi ndax diw la am solo nga wax solo nga wax. donc fali leen seen kii. <laughs> yooyu président <laughs> seen i jiit ak seen kii mais nag bàyyi leen yeneen kii ak ñi nga xamante ne ñoom. <laughs> ñu leen man nag bëgg nañu ko jàppale leen quoi. waaw Mm-hmm. donc li nga xamante mooy sa question mooy euh, ne maanaam li ma dugaloon barki démb. waaw fi ma ko information bi. lu xew ci Argentine foofu laa ko mos di dugal. dafa am lu ma fi waxoon bëgguma fee te bëgguma cee ñëwaat. ndax day indi polémique te luy indi. polémique moo tax ma jiital na du polémique. waaw boobu bu ma indi. boo déggee sama question dama ne du polémique. <laughs> voilà. si dama ciy sant yàlla ndax euh, c'est vrai que euh, bi ma dugalee yaakaar naa boo leen dégloo message bi dama leen ne yéen délégué yi c'est-à-dire responsable. ñu jàpp ne ñooy njiit yi rek. waaw délégué nag mën na nekk benn responsable fenn fu nekk waaw donc c'est-à-dire kenn ku nekk yaa waroon a jël message bi traduire ko sa bopp xool nooy xool ba ba wax kook sénégalais. mais sénégalais yi des fois lan moo xew aussi dañoo naqari jiite. dégg. da ngay gis koo xamante ne mu ngi ci benn délégation ne leen ah diw de nee na lii ñu ne waaye yow ba ñu dëgg diw maanaam duñ la gëm. wala duñ la kii des fois donc pour affaire bi facile gars yi dañuy jël audio bi rek dugal leen ko mais aussi comprendre naa leen. ndax mhm. aussi njiit ñuy def liggéey bu am solo. ak délégué yi ak fu ñu mën a nekk ndax wax dëgg neex yàlla lépp lu concret fii. Mhm. ñoom ñoo ci jàpp. Mhm. donc aussi bu ñu ko envoyé foofu ñoom aussi ñu fexe ba mu yaatu te sénégalais sax bu ñu déggee lu mel noonu. ndax mhm. kenn ku nekk aussi da koy dugal ci groupe ba mu nekk. Mhm. léegi gars aussi ñoo koy. jëlaat daal di ko dañ koy transféré. transféré loo xam ne lu am solo la. wàññiwul dara nag wàññiwul dara ndax di nga neex yàlla du loo xamante ne. daf ñu déranger wala kii non tout à fait le contraire. Mhm. seulement que bëgguma nit ñi confondre parce que maanaam bëgguma nit ñi commencer maanaam di di di di tëbb benn étape. maanaam nañu def affaire bi étape par étape. kenn ku nekk am na rafet na njort ne lii maye kayit moo ko waral. mais boo leen gisee ni ñuy lancé message yi. Mm-hmm. parce que dañ koy def. ak dama ko bëgg mujjee rek ak cuidado mm-hmm. parce que maanaam doo xëy a xëy ne dañuy may kay te xamoo kan la te xamoo ndax concrète na na d' abord. Mm-hmm. mais dafa am loo xam ne lu am solo la. Moustapha du may kayit na leen leer. ñëpp xam nañ ko loolu association bi du may kayit. na leen leer voilà. état bu Argentine. buy maye kayit mooy maye kayit. te bii yoon. buy maye kayit mayoo ko sax sénégalais kese. am yeneen nationalité la koy may. Mhm. Sénégalais yi Sénégalais yi. ci biir loolu. Mhm. dafa am benn responsabilité bu am solo boo xamante mu ñoo ci war. Mhm. muy fagaru. lii ñuy def. étape par étape. dañuy fagaru fagaru pour ëllëg. communauté bu la daq a fagaru moo lay gën a réussir. programme bi. programme mu 2013 bu ñu ko kiiyee. parce que dañ ko fagaru. dañ ko réussir à 98 pour cent. 98 pour cent. tey jii bu ñu fagarawut ëllëg day indi jafe-jafe. jafe-jafe ay problème la ñuy indi. duñ duñ ko sax disfrutar comme ni ñu koy wax mais fu ngeen toll si ñi nga xamante ne bii ñu ngi wane ci passeport yi. xaar fagaru bi d' abord mooy bu ñu commencé ci recensement passeport yi. ma ciy santaat bu baax a baax. délégué yi yëpp ak yéen ñëpp mais aussi surtout aussi sama beneen waaye boo xam ne wax dëgg yàlla dama ko sopp parce que man dama bëgg jeunes yi nga xamante ne dañuy dañuy def. ngir yàlla. am bëgg-bëgg yàlla. am ambition bi ambition c'est très important waaw mooy mooy Lamine Sarr wax dëgg neex yàlla macha allah. Mhm. lépp lu mu ko sant te yàlla tax te communauté bi tax. lu mhm. ci teg baat day def te du tey du ëllëg saa yu ñu amee benn affaire day ñëw toog dóor dóoram daal di dox. loolu man nit ñu mel noonu man dañ may kii ay idole lañ pour man te loolu man nañ ko ñaanal bu baax te mm-hmm. te te jàppale ko aussi xool ci loolu ñun tamit ñu xool aussi ci ñoo yeneen jeunes yi xool ci loolu te kenn mm-hmm. déggu ko muy wax kenn déggu ko muy xastaate di muñ sax ndax des fois sax dañ ko ne woon ne dañ ko jiiñoon ne moom mooy mooy sélectionné nit ñuy jox xaalis yi nga xam ne moom miy def ñun ñi sax def wax nañ ko loolu ndeysaan mm-hmm. donc am nañ plus de neuf cent 47 personnes yoo xamante ne seeni passeport mu ngi war a jeex wala mu jeex wala mu réer wala muy waaj a jeex des un an mhm. rendre nañ compte ne nañ leen lii am nañ ko loolu lan moo tax pour ñu fagaru pour ëllëg bu ñuy envoyé mission ñu mën koo envoyé ci temps boo xam ne kii su ma toogee wala bu ñu toogee xamuñu mhm. ñaata sénégalais ñoo manqué passeport dañuy naan ah amoon nañ fi mission daaw donc xam naa ay 400 sénégalais ñoo fi manqué passeport mhm. donc bu ñuy envoyé mission dans ce cas envoyé mission boo xam ne cinq jours 6 jours du fi mat. Hmm. mais boo leen ne am naa 900 personnes yu yu inscrire arrondir naa ko pour deux 1200 personnes dinañ préparer pour ëllëg bu ñuy ñëw mën a jël seen temps mais loolu ne en faites pas ëllëg même bu ñuy dem bay maye kayit. Hmm. am na lu bëri loo xamante ne aussi administration mu ngi ciy bàyyi xel. Hmm. muy dinañ jéem a xool maximum yoo xam ne mun nañ koo def ba. passeport bu jeex wala yenn kii du doon gàllankoor yooyu yëpp dina am solution non waaw dina am solution kenn du la ne doo présenter sa casier judiciaire mm-hmm. mais bu jotee rek information boobu bu jotee dinañ mm-hmm. leen informer nu mu war damaa bëgg rek ñu dem étape par étape étape bañ a mais xam leen ne soo administration laay wax de du ma ne Moustapha mu ngi sóoraale wallu passeport yi. Mhm. mu ngi sóoraale wàllu identification yi mu ngi sooraale waaye wàllu casier judiciaire yi. Mhm. bépp anam boo xam ne mën na koo def pour mu gën a yomb dina ko def waaye nag nañ muñ rek. bu mhm. moment bi nga xamante ne war nañ koo lancer. bu jotee rek ñoom dinañ ko lancer seen bopp wala ñun dinañ leen lancer wax leen fi nga xamante ne fa la ñu yem. li ñu envoyé barki démb. dugal ko ci ojo yi. et defuñ ko aussi ngir suñu kii dañ ñoo. def benn posé benn question bi ñu posé question bi ñu ne leen may leen ñu 24 heures de temps lañ ñu may. ñu mhm. dimbale leen ñu ci lii. ci biir 24 heures de temps boobu aussi maa ngi remercier délégué yëpp accomplir. ñëpp accomplir. complir macha allah. macha allah ñëpp accomplir euh, ci informé c' à dire euh, su ma ne ma jëlee kaaw Tukumaan par exemple. ma mhm. ne. ñaata sénégalais ñoo fa nekk te amuñu dënn yi uh-huh. yow nga jël benn chiffre nga ne ma par exemple cinquante personnes uh-huh. man damay jël ne tukumaan nee nañ cinquante personnes ñoo fa nekk uh-huh. premier chiffre mais damay jël cinquante yooyu ma teg ci trente wala quarante ma ne mm. quatre-vingt-dix nga xam ne da ngay soo doo bàyyi damay am ñaari chiffre donc damay defar ñaari colonne su ma nee Buenos Aires capital fédérale am naa huit cent personnes damay def ci wetu yi am naa mille deux cent personnes cest a dire ci ñaari chiffre laay ànd loolu lan moo ko waral des fois maanaam booy def ay statistique wala booy xayma uh-huh. doo yem ci benn chiffre uh-huh. da ngay def chiffre bi nga xamante ne yaakaar nga ne moo net uh-huh. mais da ciy dolli tuuti teg ko léegi nag leeral ne lii damay réserver pour ëllëg ndax mën na am ñoo xam ne yëg nañu wala ñoo xam ne yëguñu nga sóoraale aussi ëllëg ñi mën a dawe Brésil ñëw ñi mën a kii loolu yëpp boo gisee administration di ci dox wala nit ñi di ko préparer parce que Eh, yow pour nga mën a réussir benn af étape. Mhm. pour nga mën a réussir benn affaire. Mhm. foog nga préparer moyens yi yow bu fekkee ne yow da nga bëgg a recevoir mille personnes. Mhm. te préparer woo pour recevoir mille personnes da ngay échec. c'est difficile bu fekkee ne da nga war a jot eh, da nga préparer woo pour recevoir cinq cent personnes. léegi ëllëg sa calcul nax la yow ba nga recevoir mille personnes da ngay échec. donc loolu moo tax ñuy jéem a def genre prélèvement surtout ci côté gox-goxaan yi parce que su ma xamee ne par exemple bu xamee ne administration bu xamee ne Tukumaan wala ba cent personne ñu nga fa dinañ xam seen ressource ñoom naka lañ koy distribuer pour waa Tukumaan mën a taxawu sénégalais yooyu buñ xamee ne eh, tel dëkk Uh-huh. trois personnes ñoo fa nekk. Uh-huh. dinañ xam yan façon recours ak ñaata recours lañ fay def déplacer pour maanaam ñu mën a taxawee ñooñu. Uh-huh. donc bu ñu amee xayma boobu kenn ku nekk foo nekk ñaata nit ñoo fa nekk ñaata nit laa war a recevoir. def leen di faciliter pour ñoom ñu préparer seen recours. pour nit ñi gën a neex a attendre. waaye nag ci loolu yëpp yëgaguñ fa. waaye xam naa ne li gën a am solo mooy gën a woon Sénégalais yi ne autorité Argentine am nañ intention mu ñu ngi koy liggéey depuis te autorité yu Sénégal aussi ñu ngi leen ci jàppale ci lépp li nga xamante ne. Mhm. moom lañ mën muy aussi seen responsabilité. Mhm. te ñu ngi koy def. Mhm. mais li ci gën a am solo mooy suñu responsabilité. te foofu dama ci insisté bu baax a baax. bu kenn yàkkamti bu ñu leen doon naan wàññi leen wala moytu leen ka ka kaw sa xuddi genre yu mel nii moo ko waral. moo ko waral bëgguma tiital kenn. dëgg la mais dafa am solo mais dafa baax ñu koy leeral. ñu koy leeral dafa am solo ñu koy leeral administration. Mhm. ça n'a rien à voir avec la justice. boo may euh, mhm. à dire yow. yow bu fekkee da ngay jaay ci mbedd mi. Mhm. ñu jàpp la ne yow mënoo jaay mënoo laal fii yëkkati la. loolu contrave non loolu loolu jaay laay wax. jaay jàppuma ci marque. loolu contravention la loolu du kaw soxla si mel ni koo xamante ne dafa yor otoom rek feu rouge bi tàkk maanaam mu jàll mu jàll. da nga koy indil mooltu ne ko waa bu ko def ñaari yoon parce que uh-huh. day indi ay kii cause judiciaire mooy koo xamante ne maanaam peut-être mu ngi jaay ay marque yu bëri wala ñu jàpp ko maanaam mu résister ci autorité uh-huh. cas buñ ko jëlee buñ ne marque la ñu ne loi fédérale donc uh-huh. dañ koy yóbbu et donc ñu dem ba mu dugg justice des fois du indi problème parce que ñun lu ñuy jaay bëriwul parce ñi fiy résister peut-être na am mois de communication yi ñoo koy exagérer mais am na ñu bëri ñoo xam ne dañ leen di jàpp mais du ñu indi benn jafe-jafe. Mm-hmm. ñooñu des fois bu eggee justice du yàgg justice. Mm-hmm. archiver ko mais balaa mu koy archiver aussi dafa baax yow ngay dem ci justice taxaw ne leen man maa ngi nii. Mm-hmm. man dawuma. day fii laa dëkk lii mooy sama téléphone. comme ni ma ko exactement uhuh. boo leen ko waxee won leen ne yow. Uhuh. da ngay dund da ngay liggéey. Uhuh. dawoo ragaloo ci li ngay def. da am jafe-jafe rek maanaam destin moo la. kii nga am problème bi. yow balaa ngay retourné balaa ngay am une semaine ñu teg ko fële. ndax xam nañ ne am nañ situation yu gën a am solo lool. bu fekkee ne nag dañ laa jàpp nga ne ax ah, loolu garaawul xaaral ma jëndiwaat yeneen bagage bañ a dem ba koo topp. moom mu toog surtout mu am surtout li gën a garaaw mooy bu amee résistance à l'autorité ndax dafa am benn troisième personne muy policier bi muy autorité bi nga xamante ne daf laa jiiñ ne yow da ko gaañ wala da nga ko dóor wala da nga ko respecté donc justice mënul archiver dossier bi tant que am na ki taxaw ne non kii daf maa def lii donc des fois day naa non xaaral kii ma wari ko. Mhm. donc bu la notifié des fois ñu bëri dañuy taxu wala maanaam dañuy jot benn kii duñ ko. faale donc loolu day indi lu ñuy wax. day indi lu ñuy wax rébeldia d'abord. justice bu la sitaaree du problème dama taxaw amul benn problème justice nekkul ab. maanaam ab kii boo xamante ne day dóore wala ab gaay non mm-hmm. xam ne mm-hmm. day départage day kii ay nit maanaam yow lii nga def lii waroo ko woon def loi bi lii la wax et cetera du la def mm-hmm. donc demal nga taxaw nga ne ak ah, lii def lii de def naa ko wala nga négaar lépp ne man defuma dara ci li ngay wax te ko bëggee kii dañuy dem ba xool ndax am am nañ preuve bu ñu ragal justice nañu respecté justice yi mais bu ñu ragal justice nañuy dem topp suñu kawsa yi ndax boo ko toppee boo présenté wu benn yoon naan waa lii jàll acca mu dem. dund naa ko loolu xam nga ci dara. Mhm. exactement mhm. donc loolu nañ ci bàyyi xel. parce que mhm. bu desee. kawsa bi buñ ko ubbee. yow mën nga dem wuti kayit. am na sénégalais yu bëri yoo xam ne ñu ngi fi tey. mën nañ koo seede ndax jaar nañ ci. donc ñun aussi bu ñu jaaratee ci benn expérience nañ koy nangu di nettali suñuy. raak pour ëllëg mu leen dal. pour ëllëg ñu bañ lenn dal malheureusement mooy suñu grand problème. c'est très important ñun des fois dañuy bëgg ci lu ñu dund ba gaañu ci keneen jaar te dund. ndax oh. loolu xaw ma ndax nuñ ko mën a waxee ndax ñàkk a yéene la ndax. lan la mën a kii mais nit bu fekkee da nga jaar ci foo xamante ne leer na la ne maanaam arrangé wul la te arrangé wul kenn. da ngay avertir nit ñi pour la dura ne leen eh. lii kat defoon naa ko lii daloon na ma ci donc nañ ko moytu. Mhm. bu ko dëggee baax na bu ko dëggul. problème la ndax kenn ku nekk yaa yor sa responsabilité. donc kaw sa judiciaire boo ko amee administration bu lay may kayit. da la mhm. koy may. Mhm. da naan man kat ñëwal nga jël waaye nag la des ca biir mënuma koo kii mais lan moo xew yow boo amee cause judiciaire dossier bi bu demee boo ko dugalee. bu ñu mhm. jox la sa précaria bu ñuy avant ñuy actualiser say dossier ba jox la sa DNI. waaw dafa am feneen fu muy jaar. ñu vérifier. lépp ñu vérifier ko mais bu ñu gisee nga am cause judiciaire kenn du génne sa dossier. du jàll. tànk tëjut. kaw bu ñu ubbee kaso bi en tant que bi fermé mais mais mënul kii mënoo mënoo mënuñ laa jox mënuñ laa dictar xam nga yow bu fekkee da nga yor sa données yi tey sax. Mhm. am cause judiciaire nekkul ne données yi boobu. day arrière bu fekkee benn waaye dafa yor données yi am cause judiciaire nekkul ne day arrière. Mhm. mais yow lan mooy problème bi yow amagoo données yi da nga présenté sa papier ba ñu jox la sa document provisoire. Mhm. mais yow pour ñu jox la sa données yi. Hmm. dafa am résolution bu ñuy def c'est-à-dire diw présenté na papier yi def na lii remplir na lii conditions yi. Hmm. loi bi may na ko lii donc directeur immigration. Hmm. mu koy signaler pour maanaam mu am données yi bu deux ans. loolu disposition la yow disposition mënoo koo jël tant yaa ngi gis ni kii kat am na lu mu war a layoo ak yoon. autorité bi administrative bi. bu sañoon mën koo signer mais day naan non man mënumaa signer lii. parce que kii dafa am loo xam ne dafa ubbeeku ci wàllu yoon te da ko ko war a càmbar ba pare. ba juge ne ma non li kii sakatuma ak moom dara ma door a mën a signer li nga xamante moo ma concerné. si c'est-à-dire autorisation bu mu am ci document am sax dafa am benn gàllankoor bu muy am pour signer la ko ndax yow da nga am leneen loo xam ne. da nga ko war a régler ak yoon ba mhm. pare. léegi ba yoon ne moom sakatuma ak moom. dara léegi yow nga mën koo continuer. moo tax nag kawsa dafa am kawsa yoo xam ne dañoo léger am kawsa yoo xam ne dañoo grave comme li ma leen waxee contravention wala yenn affaire yu ndaw yi des fois du la indil jafe-jafe mhm. mais des fois ay rébeldia ay yeneen cause yoo xam ne ay marque ay kii yooyu surtout loo xam ne da ko def defaat mhm. des fois da indil jafe-jafe yoo xam ne tant que complété ko rek day jafe yow nga accéder ci documentation yi mhm. moo tax nga gis ñoo xam ne dañuy am document boo xam ne dañ koo ubbi tey duñ jot bàyyi un an deux ans te loolu da lay perjudicar c'est-à-dire da indil problème da indil jafe-jafe yow donc nañ ci bàyyi xel bu baax. incha allahu taala bu ñu jógee foofu. Mhm. dafa baax ñu am responsabilité suñu biir. Mhm. man ko ci bu ñu demee ba lii. yéeg si na jonn ba pare nag am intention kenn ku nekk jàppale sa moroom boo tànnee te yàlla rek tax parce que lu mel nii xam nga lan moo ciy commencé ubbeeku. te mhm. dinaa leen ko wax parce que man. non dafa am solo boo gisee bëriwuma xarit des fois loolu moo koy. dafa am solo Moustapha c'est day am lu mel ni bu bu génnee nga gis ay profiteurs yu bëri yoo xam ne dañuy génnoo non kaay ma jëlal la tourne nga fay ma 1000 wala ma. dara amu ci wala kaay sama xaritu tubaab bi. boo ko defee lii mu defal la surtout système boo xam ne tey système bu électronique la peut-être ñu bëri duñ ko. miin mais bu fekkee ñun. d' accord nañ ñu gox bu nekk ñu jël ñaari nit ñetti nit ba ñeenti nit ñu tanante ñu jàngal leen parce que ñun mën nañoo demande pour ñu capacité leen yàlla waaw ñu capacité leen léegi ñun ñu jàppale sénégalais kenn ku nekk ci gox bi mhm. gox boo xam ne cinquante personnes boo amee quatre personnes ci mhm. deux jours kenn ku nekk nga dugalal ko dossier mu jeex kenn du ko fayeeku kenn du ko nax du def naka su dul noonu donc loolu responsabilité boobu bu ñu ko amul mhm. musiba day am donc ñu respecté ko mais aussi ñu maintenir suñuy email Mhm. xam ne lépp looy def ci kii faw ngay vérifier sa email sa téléphone sa adresse du tey ma dëkk fii ëllëg ma def dëkk fële donc loolu aussi ñu ci bàyyi xel c'est très important yaakaar naa bu baax ci li ngay wax di dëkk ci fenn boo dëkkee ci fen mhm. booy changé mhm. adresse boo changé adresse aussi demal nga informé ne dangaa changé adresse ndax lu bëri luy am fii et des fois ay manque not ñu notifié la yëgoo ko wala ñu ne la indi lii mënoo ko indi ba dampi jeex te ñun dañoo yaakaar ni ñu ñuy doxe Sénégal noonu la ñu war a mhm. doxe Argentine wala feneen Argentine dafa am système administratif ak judiciaire lu ñuy wax plaso Sénégal mhm. sax am na fa mais des fois gars yu bëri duñ ko duñ ko mhm. respecté des fois nga si taar nit 10 heures mu ñëw 10 heures 20 10 heures 30 et cetera donc plaso fii bu ñu la nee yow am nga 10 jours pour nga présenter lii 10 jours yooyu boo ko présenté wu da ngay da ngay ñàkk donc des fois moo tax lépp loo xamante mooy email muy ay notification muy sa adresse da nga ko war mhm. di actualiser parce que lan moo tax di ko xool mhm. parce que bu ñu la notifié ne ma indil ma lii ci 10 jours wala ci 20 jours boo ko indil déjà perte nga li nga xamante ne mooy sa mhm. démarche wala gën nga cee am jafe-jafe boo xam ne mën na la tax a perte say say activité say say démarche am na solo xam naa am nañu ay question suñu Moustapha ci internet bi ci yaakaar naa tubaarkàlla mbokk yi xam naa ñu ngi gën a bari 200 eglo ci personnes ñu ngi ñuy suivre mais nag xam naa li ko des ci temps bariwul kii dafay laaj ni yaakaar naa gis nañ ko raw moom daf ni ndax dañu laajte casier judiciaire yaakaar naa loolu waxoon nga ci léegi <laughs> loolu yaakaar naa waxoon ko ci mais xanaa nga leeralal ko ko rek moom dañuy laajte eh, na seen xel dal maanaam bu ñu bu ñu yàkkamti parce que lan moo xew tey mhm. su ma leen ne waaw dinañ laaj casier judiciaire mu yor ko te système bu ñuy jël ëllëg. Mhm. différent mhm. xam nga erreur lay doon. dëgg am na système boo xamante ne c'est préparé. d'abord yaakaar nañ ne moom mooy dox. incha allah waaye kenn xamut tey bii da ngay préparé. yaakaar ni du man maa ko préparé du kii. mais autorité yi koy xool ba xool système boo xamante moo gën a adéquat pour sénégalais yi. mën a mhm. ci situation boobu ci légaliser seen document ñi nga xamante ñoo nar a jëm ci kayit yooyu ci moment boobu bu jotee donc. Eh, bu ñu yàkkamte ci côté boobu ndax bu jotee rek moment bi ñu leen ci war a jox dara muy man muy keneen wala képp ku mën a doon. Mhm. moment bu ci mën a informer pour sénégalais yi xam yan document la ñuy soxla. mel ni mi ngi ci tudd lu mel ni kiwit defe naa lu am important. waaw dafa waaw et eh, xaar kañ lay doon date bi sax xamaguñ ko par exemple. xamaguñ laa wax parce que waxoon nañu dañu yaakaar naa bu fooyee suma juumul. waaw mais mënuma laa wax. Eh, novembre lay doon. décembre wala décembre janvier wala année bii nii. adama am. na te avancement ci góor góorgóorlu ci côté gouvernement yi muy am. incha mu am solo. waaye date exacte sax. maanaam kenn mënu ko koo wax wala kenn mënu koo am. Mhm. donc aussi yeneen démarches yi nga xamante moom lañ ciy laaj ay documents kenn kii yóbbu ko. Mhm. donc li tax tey mosumaa toog sax di kii damay mosu ne. indi leen lii nañ préparé passeport nañ def lii et cetera mais mosuma taxaw ne dañuy may kayit wala dañuy kii déedéet. Mm-hmm. mais nit nag mën na ne gouvernement bi am na intention pour psychologiquement ñu ñu commencé di préparer wu. mais mhm. bu tax bu mu tax kenn saalit bu mu tax kenn di jóg di da laajte dara loo xamante ne peut-être yegg seegul. Mhm. parce que duñ la mën a répondre du ñu am sa réponse mhm. donc maanaam nañ teyeegum te xam ne lépp lu ci war. li gën a yomb ci situation muy légalisation wala pour yeneen dommages yu administratif yi dinañ jéem a xool naka lay def. autorité a xool naka lay def pour mu gën a facile. pour mbir mi gën a ñuy ñaan ci yëpp muy ñun la am yëpp mooy responsabilité totale kenn bañ cee def naka su dul noonu. Mhm. ku ci bokk bokk ci ku ci. bokk bokkul ci bokkoo ci. am na ñoo xam ne ñu ngi fi woon 2013. Mhm. te lu ñu forcé forcé mujj ñoo am. ci 2013. te bu leen tey année bi bu leen na buñ ci naree am ci leen ci incha allah am na ñeneen ñoo xamante ne avant année bi di ñëw am nañ seen i kayit ba am seen nationalité donc yàlla moment bi nga xamante ne tudd na sa mbir moment boobu ngay donc tant que ñun ñu ngi jaay responsabilité di wane responsabilité mm-hmm. ci li nga xamante mooy démarche yi ñu autorités yi di jox dañuy mm-hmm. gën di am possibilité pour ëllëg ñu mën ñoo wóolu ci loolu mm-hmm. nekkuñu fi ñun kese ay ay communauté am na yeneen communauté yi fi autorités yi dañuy xalaat xalaataat bu ñu leen bëggee may kayit Mhm. des fois sax bi ñuy maye duñu tuddaale mhm. parce que lan parce seen système lu ñuy doxale wala seen këyit wala yeneen seeneen yeneen problème yoo xam ne ñu ngi koy am ci dëkk bi mhm. donc ñu amee a valoriser pour image bu rafet ci situation yu mel nii moo mën a tax ëllëg ñu xalaatal c'est très important donc loolu ñeen ci bàyyiwaat xel Abdou Latif moom nee ñi nga xam dañu am diplôme diplôme maanaam da war a dem université mais dañ leen di laaj. Euh, dëgg eh, non attends eh, université bu Buenos Aires université bu publique la. Mhm. université bu publique la boo xamante nekkul ne dafa am obligation yow nga am données pour dugg ci université. Mhm. c'est obligatoire waaw boo demee ba bëgg a def yenn examen yi wala ba bëgg a jot sa diplôme. Mhm. dañ lay laaj données yi. mais pour dem université nekkul obligation am données yi. d'accord c'est très

man man man man man. ab Sénégal ñëwul man nit non non non c' est que ñun. non dañuy def benn affaire et son contraire c' est à dire ñun ragaluñu def jëye mais dañoo ragal yoon. dañoo ragal yoon. mooy loo xamante ne c' est c' est paradoxal c' est dire dafa dafa kii quoi. de mhm. maanaam warul mën a ànd quoi. yow yoon da koy respecté mais da nga war a dëgër ci sa kii boo commettre erreur wala loo mën a def doxal nga dem. wala nga sakk ko ak nit au lieu que ngay dóoranteeg moom dem leen ngeen toog mu ne leen noo yow yaa jàpp ci yoon kii jàppul si yoon ngeen génn joxante la ko doom si doom mais par exemple dëkk bi ñoom ci seen bopp dañoo xaw a defar si Moussa Fall non xaaral bu ñu jëmagum ci foofu waaw kaw sa judiciaire hmm. xam ngeen ko mooy hmm. yow police jàpp la wala yow maanaam même bu la police jàppul yow nga am jafe-jafe ak keneen wala nga am jafe-jafe feneen loo xamante ne dafa dem ci yoon mhm. yoon ubbil la benn dossier ne la dossier bi lii lañ la jiiñ wala yow lii nga def mhm. police nee na da nga yoroon marque et cetera indil na ma acte bi par exemple cause bi day ubbeeku c'est-à-dire cause judiciaire mooy dossier boo xamante ne juge bi moo koy ubbi ne man kat policier bi wala lii ñii mhm. ñoo ma indil lii ne yow lii nga def lii mooy seen preuve yu ñu indi léegi yow nag lan lay xaar ci yow yow nga ñëw ne maa ko def wala boo nee maa ko def. Hmm. ñu xam ne yaa ko def. boo nee defuma ko ñu ne indi preuve yi wane ne defoo ko. te bu fekkee ne am nga ko mais indi ko mu jeex tag nga dem layoo. kon gars yi dañoo filmé nag des fois am luy xew ci kase bi loo xam parce que fa yi am na lu xew ci kase bi. parce que dama jaay Flores. Flores ay policiers ñooy dàq ay sénégalais di leen dàq. Hmm. ñaari sénégalais dox seen tànk ñëw ba ci policier bi ne leen bàyyi leen ñi ngeen di dàq. Hmm. wax ak ñoom correctement seen sax loxo jógul. policier bi jëkk jékki tëb dóor Sénégalais bi. dóor directement. barke yonent bi. dóor ko ba pare wooraa foo ñu jàpp Sénégalais bi mooy ñoo ko toj dóor ko mhm. mu def après. xam nga loolu dafa dafa duñ ko foofu. amul film la ci film maanaam sénégalais bi. non jarul film même bu amul film. waaw am na nekkul ne lépp ci àdduna lañ mën a filmer. nekkul ne lépp la ñuy am preuve yoo xamante ne yu tangible c'est-à-dire loo xam ne dañ ko mën a laal wala ñu gis ko ci kii. Mm-hmm. tey yow boo ma dóoree. yow bul yaakaar ne aussi moment bi la police bi di dool amul loo xam ne. kaso de kama ah, yow mi nga xamante ne yow lañ dóor ci loo xamante ne yow du yoon. Mm-hmm. ndax ak ci lépp luñ la mën a dóore du yoon. Mm-hmm. ak lépp loo mën a def. surtout police autorité mënu laa dóor. kenn waxut nag maanaam ñuy résister parce que ci résister des fois du doon dóor. des fois ci buuxante da ngay gis maanaam ñu daane la daane bu am solo bu maanaam waaw des fois non foofu moom bëgguma sax ñu continuer ci parce que xamal moo xew mm-hmm. boo boo bu la police ne taxawal taxawoo rek yow lépp lu fa ñëw rek maanaam mënatoo am raison sa culpa la di waaw parce que police autorité dans ce cas bu bëggee taxawal koo xamante ne xamut ndax moo ko ëpp doole ndax jàng na arte martial moom day utiliser force am yépp pour maanaam dominer loolu duñ ko bàyyi donc maanaam yow xamoo ko yow ki nga xamante ne dangaa dajeek moom ne ko taxaw mu bañ a taxaw xamoo lu mu yor xamoo nu mu préparé woo donc loolu pour ñu éviter ko déjà faw ñuy tranquille ci côté boobu tranquille nag du ragal non non respect la sax respect bi ngay jox sa bopp jox ko keneen jàpp sa njàmbur ndax tooñoo kenn donc ki nga xamante ne nag police dafa ñëw actuar ci moom ci action boo xamante ne nu kasu dul noonu violé na li nga xamante ne mooy réglementation ak lu mu waroon a def comme donc kooku teg ko ci yoon dafa yomb mais c'est que ñun des fois dañuy dem ba nekk ci position bu baax pour pour maanaam pour accélérer. benn affaire am si kii. Mhm. ñu bàyyi ñu bat ko. au lieu ñu dem ci justice ñu ñu dem ci média des fois di wax wala ñuy dem ci kii yi di di expliquer te loo xamante ne. donc ban sens ban sens lay am. nit ñi ngeen ñuy kii saaga police yi et cetera mais kañ lañ commencé saaga police yi bu Argentine ba léegi. mais yow boo xamante moment yoo xam ne yëg seekuñu fii ba léegi te la ñuy def la ñuy def. koy def ñuy continuer ba léegi. donc lan moo xew yow buñ la dóoree. Hmm. nga xam ne dañ laa dóor. Hmm. même buñ la yóbboo boo génnee demal nga dénoncer porte plainte ne hmm. fonctionnaire bii. fan ngay dénoncer booy dénoncer. booy dénoncer nga dem fiscal directement. nga dem ne man tel jour. Mhm. man comme police moo la kii doo mhm. dem commissariat di kii da dem mhm. fiscal. fiscal ngay dem nga dem ne tel jour tel heure benn policier bu taxawoon ci tel kii moo ma dóor. boo xamul tour bi boo xamul centre bi kii ci tel esquina et cetera. defuma ko dara expliquer sa situation présenter sa demande kenn waxu la suite bi naka lay demee. mais nit ki bala ngay mën a xam ban résultat nga am. ngay am faw d'abord nga jëm. faw ngay dem. amoon nañ benn cas boo xam ne bu ñu kiiyee dañ leen a ne. man duma leen promettre benn résultat. claro mais dinañ réclamer li nga xamante mooy suñu droit. droit mais luñ ci gis gisuñu résultat. résultat bu wér. ñetti résultat yëpp yu favorable donc nit ki da dem nga xeex li nga xamante ne mooy sa droit maanaam bu ñu la defee dara bu ko jàppee noonu wala nga toog di wax kese. jógal nga dem ne man li ma def maanaam yoon nangu ko te man nangu ma ko ndax yow mënoo maa dóor mhm. muy policier ba muy juge ba muy citoyen nor eh, kii ba mhm. civil ba mhm. dóor nga ma man ma dem ne leen diw bi moo ma dóor su ma amee sax surtout ma dóoree gars yi bi ci bàyyi xel ni policier dañu am matricule dañu am nombre même boo jàppul tur bi yow bu fekkee ne yow dangaa dénoncé dara fiscal moo am possibilité moo am responsabilité def investigation mooy xam ban police moo amoon liggéey diggante tel ak tel ban group la te mooy xool groupe boobu kan moo ko ci def. Hmm, c'est très important. te yow mën nga am chance kenn génn benn testigo mën laa accompagner mën nga am chance am caméra surveillance bu woon ak kii bi lan moo xew bu fekkee ne def la wóor ne nag yow avant ngay yegg si foofu daa am loo xam ne. def nga ko te naka su dul noonu. te ragal nga ko ci. Hmm. doo dem yoon. te loolu aussi des fois duñ ko nettali maanaam dañuy nettali li nga xamante moo ñëw après. donc loolu yëpp nañ koy bàyyee xel c'est-à-dire mhm. nit ki moom boo gisee ñu bëri di ragal yoon aussi parce que maanaam liy indi problème bi des mhm. fois duñ ko buñ ca bëgg a egg dañuy bëgg a tëb rek mhm. tëb rek dem ci problème bi te problème boo ko bëggee faj da ngay retourner arrière xool lu ko indi. lu ko indi fu mu jógee. Mm-hmm. boo mënee faagaagal fu muy jógee wala maanaam nga mën koo décortiquer xam ko. Mm-hmm. di nga mën a xam résultat bi maanaam di nga mën a litte ci li nga xamante mooy action bi ñu la def. ndeysaan am na solo nga xam naa ñu am benn laaj boo xam ni moo nekk ci bopp ñu bari ci waa Argentin yi yàggul dara sax am na benn reportage bu ci ab télé def li ñu nuy joxoñ daal li ñu ko xoole mooy ñun benn maf lañu ama dafa am benn groupe boo xam ni moom moo ñu fi indi di ñu liggéeyloo. Mhm. mën nañu jël exemple ci La Plata sax loolu feesal nañ ko yàggul ci ay journal ñu bari wax ci. Mhm. ba jàpp ni daal ñun ay maf lañu dañu am ñu ñu jël di ñu di ñu liggéeyloo di ñu fi indi comme ça. Mhm. loolu it ba léegi dafa mel ne réponse bi loolu. leeragul seen seen leeragul ci askanu Argentine bu baax ca tont yi dañ koy seeni ci ñi nga xam ne ak ngeen fi yor ay kuréel maanaam yor ay association yoo xam ne tey loolu ngeen ci war a tontu. bu mm-hmm. ñu delloo ca ginnaaw sax am na ku waxoon ba wax ni ñun li ñu liggéey dafa am benn kilifa bu ñu koy jox. Mm-hmm. booba ak tey amagul benn tont bu leer boo xam ni. Mm-hmm. dana daj comme ñoom ni ñu ko waxee. ni ñu ko waxee mooy seen li ñu bëggoon a véhiculer maanaam. Argentine xam na ni lii la mais réponse boo xam ne dafa egg ci ñoom li ñu waxoon amagul. exactement mhm. mhm. waaw eh, dinaa leen wax benn affaire la kenn ku nekk nag eh, am nga sa. droit am nga sa droit. xalaat looy xalaat yor sa opinion et cetera. dafa am loo xam ne waruñ koo ragal. Eh, mhm. dafa am luy indi dara aussi. man de ma ne dama leen bu fekkee ne ñun ci suñu bopp. ñun ñooy jiiñ suñuy moroom loo xam ne leer nañu ne buñ la tëgalee ku <laughs> alxuraan buñ ko waat bu njëkk loolu tubaab yi mun nañoo wax te te ñun dañuy toog ak nit ki xam ko ba pare génn wax ci moom loo xamante ni leer na la ne boobu naka su dul noonu xam donc loolu d'abord nañ commencé foofu mm-hmm. des fois aussi ñu nekk ci situation yoo xam ne dama koy wax gars yi à chaque fois des fois bu ñuy bu ñuy protestar wala bu ñuy génn nañuy nañuy defar suñu langage bañ cee boole politique. Mm-hmm. parce que lu xew yow booy dugg ci mbiru politique maanaam di ŋàññi ab politicien muy opposition muy officialisme et cetera. Mm-hmm. bu jógee ci kaw day utiliser moyen politique. Mm-hmm. journalu Argentine. mosuñoo favorable des fois ci kaw migratoire. des fois ñu bëri buñ toog yee seen. émission yeeg ay affaire xénophobie def la ñuy gën la gën di wane ne affaire culturelle yi sax. Mhm. loolu mun ñu bàyyi ci xel bu baax. Mhm. tey ñu ne rek waaw sénégalais yi mafia la ñu jóg lu nekk ñu kii ko tey amul sens. amul sens amul parce que boo waxee ba pare. Mhm. di nga gisaat journal génn génn lu raw lool nga waxaat mu génn lu raw lool. da ngay toog maanaam un an boo xamante ni ci même thème bi leen dugg parce que des fois la ñuy bëgg mooy benn thème bi ñu koy décortiquer ko defaat nii parce que daf leen di may buzz kii exactement mm-hmm. donc il faut faire dañoo war a def très des mm-hmm. fois ci yenn information yi parce que lan moo xew par exemple Kaaw La Plata ñu ne benn autorité moo dem présenter dénonce contre eh, benn organisation boo xam ne day jàppale sénégalais yi pour ñuy mën di def genre ay mafia maanaam ñoom di jaayloo ci nit ñi ci mbedd mi ak ay marque yu kenn xamul. Mm-hmm. waaw mais def nga dénonce. Mm. da ngay doo représenter dénonce. Mm. waa est-ce que yow en tant que autorité officielle autorité. Mm. naka ngay jiiñi nit. investigaro ba pare di ne man man jiiñ naa nit di kii kenn du ko def. fekk gëstu donc yow non c'est-à-dire loolu moo war a woon ne ne politique lañ ciy def. parce que yow dafa am ci yoon lu ñuy naan principe d'innocence mhm. c'est-à-dire man góor a mi su ma ko gisee mhm. pour man nit ku sell la mhm. ba ba may gis le contraire le contraire su ma waxee dara ci moom ba walla mu def dara sax mu war koo dénoncer même su ma ko dénoncer moment bi ma ko dénoncer ba investigation bay dem bay am argument yi ku innocent la ba ba ñuy gis nag li nga xamante ne moom la ñuy wër ci moom donc nit ki mënoo koo dénoncer rek taxaw ne dénoncer naa diw mooy def lii. Mhm. déedéet parce que yow investigateur agoo. Mhm. danoo ne da nga ne dama dénoncer te da nga dénoncer pour lan pour ñu investigateur ba xool ndax loolu am na wala amul. donc boo xoolee ba ca biir ñoo bëgg wax ji law. Mhm. wax ji indi ay jafe-jafe. ndax yow boo dénoncé toppal yoon rek. léegi nañ xaar ba xam ndax dénonce boobu ñu def fu muy yuñ. fa la wan lu ñu bu fekkee ne li nga xamante moom la ñuy wax am na. mais ñu ko kiiyee ba pare nañ fexe ba am accès ci li nga xamante ne mooy li ñuy def. bu xool ba xam ndax argument yi nga xamante ne moom lañ am solide nañ. xam nañ bu baax ñun ne ñun mënuñoo di liggéeyal kenn sax. dañoo am problème sax former ay coopérative pour boolewu ñu ñëpp liggéey. Mhm. waxatuma la ne kenn di ñu liggéey. liggéey loolu leer na ñu kay. <laughs> wax dëgg yàlla métti na comme nu ñuy. parce que neexul waaw ma aviser leen par exemple comme barki démb bu ñu déggee ci benn télévision bu Sénégal ñu ne Moustapha mooy jot xaalis yi mooy def. mooy def nag waaw dëgg yàlla moo gën a métti loolu. loolu franchement. te moom muñ ko jàpp sama ma ndax mën naa gën chaque fois di naan waa. man tontu ko non booy tontu loolu sax da lay ñàkk loo fayda leneen li ma ciy topp mooy mhm. li ma ciy wax mooy Mhm. biondini mhm. c'est-à-dire lépp loo gis da ngay calculer aussi kan moo ko wax ak fu mu jóge mhm. da leen di analyser journal yi c'est-à-dire man dafa am ay journal de gauche am journal de droite sénégalais nag des fois du saytu lan moo télé bi rek <laughs> télé yi ñuy xool ndax dañuy xool ndax pellicule yi wala journal yi même journal boo koy déglu ci tele da ngay sool sóoraale idéologie groupe journal boobu parce que sinon li ngay dégg foofu yépp ngay gëm te li ñuy wax rek noonu ngay gisee sa àdduna te da ngay yàqu donc yow d' abord da nga war a analyser lan mooy idéologie groupe journal bi. d' abord lan mooy Canal 13 lan mooy. Téléfé lan mooy America. Mm-hmm. ñoom lan la ñuy kii des fois ci yan thème la ñuy kii naka lañ koy décharger et cetera. Mm-hmm. loolu mooy tax boo déggee fee information dégg fële information lire Clarín lire ju Página 12 nga xam mm-hmm. ne ah ñii kat ci fii la ñuy wax. loolu am na fii. am na aussi des fois Sénégal am na aussi yoo xam ne journaliste yoo xam ne dañuy bind te ñu sax xool sénégal sénégalais ci kaabo bu La Plata journal yu Sénégal bind nañ ci. ci. te ñu ak. kenn dañoo gis li journal bi bind ci espagnol rek. ñu def ne sénégalais yi dañuy traité def traite de personnes ñu jiiñ nañ leen Argentine et cetera. pourtant am na journal yu baax yoo xam ne peut-être ay professionnel ak ay responsables lan la ñuy def dañoo jokkoo ak ñu nekk Argentine. laaj leen lu xew ñu expliquer leen ñu door bindu seen journal loolu mooy yoon wi nag cest à yow da ngay wut information ba pare nag gëstu feneen gëstu fële léegi daal di boole yëpp gëstu sa information mhm. ñooñu dañoo woote ambassade ba woote fii ñu expliquer leen lan la journal bi ñuy wax ci francais mhm. expliquer leen lan moo ko war lan mooy kii et cetera ñu door a bind ñu leeral leen ne fii amul traité yi ñuy wax xamuñ ko sax wax dëgg mais lan na ban journal moo ko def yan journal ñoo koy bind ay Clarín ay journal yoo xam ne ay xénophobe lañ journal yoo xamante ne ñoo gënoon a bi Argentine di am dictature et cetera donc ñooñu bu ñuy wax ci yow bàyyi leen sax ñuy wax muy bien c'est que nag ñakk a wax boobu uh-huh. muy Biondini aussi ki nga xamante ne Biondini bi buy wax ci sénégalais yi naan ñoom dañuy liggéeyal benn benn non non moom nee na dafa am benn kilifa boo xam ne bu liggéeyee moom lañ koy jox comme maanaam comme genre sëriñ ne maanaam ñoom dañuy kii ak chinois yooyu agoon na ci sax ne bu leen neexee yow da ngay analyser kan mooy c'est-à-dire nit ki bu waxee dal da ngay naan kan kii kan la kii lan la représenté ci dëkk bi si bien que c'est un politicien mais dëgg bi dafa nekk ci démocratie c'est-à-dire kenn ku nekk mën na créer benn parti politique am mhm. moom parti néo-nazi la yor mhm. xam nga luy nazisme mooy ñi nga xamante ñoo doon faagaagal. waaw nit ñi ñu ñuul eh, mais aussi ay juif yeeg et cetera ci temps yi nga xamante ne mooy ay Europe yooyu. donc ñooñu ay Allemagne. ay royukaay wax dëgg yàlla léegi ñooñu nag ñi nga xamante ñu parti yooyu. dindi nañ leen ci àdduna kooku ñëw di ko créer fii comme benn nouveau parti boo xam ne parti bu ñu dàq ci àdduna yow ngay koy génnewaat ndax parti boobu dafa bañ nit mhm. dafa dafa bañ li nga xamante ne mooy lëkkaloo doomu aadama mhm. sax donc maanaam buy wax ci yow sax boo ko tontoo da nga ñàkk fayda ndax ñoom lool la bëgg loolu la bëgg maanaam def laal la yow nga jóg pour mu continuer di la kii te daa leen wax benn affaire mhm. dañoo war a bañ ba dañoo war a ba bañ a bëri wax faw ñuy wax mais des fois ñu ba ñu bëri wax parce que lañ moo xew communauté boo gis wax ma du communauté Sénégal nag mën nañoo sant yàlla mais communauté boo gis mhm. am na tam yoo xam ne bu ñu la laalee bul sori mhm. parce que boo soree ñu indi la benn cas mhm. te cas yi ñu lay indi des fois cas yu concret lay doon mën na ñàkk am relation ak lii ñuy wax fii mais dañ lay indi lu leer des fois naan non parce que lii xew na fi parce que lii gis nañ ko léegi yow doo ko mën a dindi waaw mhm. parce que dañ lay naan noon ñun waxatuñu la plata mhm. maanaam waa la plata kii mais mais xoolal lii am na léegi dañuy dugaat ci beneen thème boo xam ne dañu naan doo ci mën dara doo ci mën a wax dara ndax boo waxee fan mhm. donc bu ñu lay laal des fois da ngay dal su njàmbur dal boo amee occasion nag nga éclaircir bi ñu amee occasion keroog ñu convoqué ñu canal nueve li ñu mën a éclaircir ci dix minutes yu ñu amoon def def ngeen ko journalu Biondini bi aussi bu jàllee amaat na leneen loo xam ne toppaatoo na ci nekkul ñu waxuñu de def nañ note boo xam ne dañ koo diffuser mu ngi ba léegi ci Facebook Arsa ak sama Facebook. si parce que dafa am benn cinq journal yoo xam ne dañoo génnoon benn journal yi muy tudd Filo News. Mhm. Filo News après Info Bay jël ko. la nation jël ko ñetti journal ñetti journal jël même écrit bi. Mhm. ba publier suñuy photo yépp ne. dafa am cinq sénégalais yoo xamante ne ay waa ñoo leen doon liggéeyloo ci construction bu illégale bu supermercado fële ca Bérasate eh, gi. si léegi ñu ne waaw léegi sénégalais yooyu eh, waa immigration bu ñu demee inspecteurs yi sax gis nañ ne kenn ci ñoom amul woon kayit. léegi police bu Bérasate gi moo leen jàpp tëj leen foofu léegi benn xuus bu nekk kilmes moo yor kawsa bi mu ko déggee man ma dara dama koo gi benn sama benn compagnie rek laa wax moom ma njëkk envoyé note bi ma def nii dugg internet gis not yi def nii journal bu nekk commencé koo publier mën a teg jàpp journal yëpp ma gravé teg fële. jàpp si ñamour. le lendemain ma jël oto 5 heures di matin ma jóg 7 heures mu ma fekk ci buntu xus gaada ba ca Kilmes. biñ ne moo ko yor. mu ni ñoo yor kawsa bi ñu taxaw li ma leen njëkk wax ni man leen man de sénégalais la man yenn yor kawsa bu kii bi c'est que amuñ fi représentation diplomatique mais comme dañuy wax ci traité aux personnes mhm. dafa baax ñu xam ci ñu xam ne liir nañ journal mais ñu mosu ñoo yor kawsa bu sénégalais sax waxu ñu wala kii <laughs> ma ne baax na gracias dem police u Bérésate gi ndax da ngeen fi jàpp carte sénégalais ne mosu ñoo jàpp fii sénégalais ma ne baax na. Mhm. ma woote immigration xefe inspecteur immigration ma leen da ngeen a mus a dem ci benn kiiwu eh, liggéey boo xamante ne dañoo doon jàpp ay immigré foofu ca kii ñu ne ñoo dem ci lu mel noonu ma ne ok comme am naa sama. waaw wut naa li nga xamante ba xam naa ne ñoom lu ma leen ci yëg aussi. mënuñ ci wax dara léegi ma commencé nag def sama note. Oh, góor waay publier ko dañoo def ay deux semaines. waa filo ñëw woo ma téléphone ne ma dañ maa bëgg a def interview pour publier maa leen du ma leen sax du ma def interview ak yéen mu ne ma non ñi pub leen ndax gis ngeen li ngeen bindoon ça fait deux semaines mu ne non ñi publier woon loolu sax liggéeyatuñu fii maa leen sama yoon nekkuñ parce que na doon les mêmes personnes. Oh, comme yéen yéenay def lii man soxlawuma sax man wone lu rafet wala kii ci seen journal. Mm-hmm. soxlawuma leen daal di bàyyi foofu. Oh, góor def naa won naa leen ne li ñuy wax. Mm-hmm. dara amu ci. Mm-hmm. parce que bu amoon ñu won ñu ay preuve donc jeex naa ci. jeexal naa ci keneen koo xamante ne bëgg na nag génn maanaam wax ci leneen. Mhm. am nga ci droit ñi fii ñëpp a mën a wax. nekkul na diwal kii képp koo xamante ne am nga sa argument mën nga génn nga wax. Mhm. mais nag. man de personnellement balaa may wax damay analyser lan moo favoriser communauté sénégalaise ndax des fois du doon man kese. may naan lii buñ ko jëmalee kaw. Mhm. ndax fan la mën a yegg. ndax ñun communauté bi dinañ ci bénéficier wu wala déet. ndax lii jar na leeral wala déet. Mhm. parce que des fois bul nekk foofu di justifier nit mën na éclaircir mais bàyyil ba nekk ci moment bi nga xamante moo adéquat. Mhm. nga def ko. Mhm. boo buggee lu ñu ñu wax rek nga jóg tontu leen da ngay li ngay wax sax dootul saf kenn. du bari njëriñ sax am na solo xam naa sax suñu dernière question yaakaar naa boo góor a amul yeneen question yoo xam ne mu ko gàdde ci internet yi ndax yéen ngi bàyyi xel ñi nga xam ne ñi ngi ci yenn province yi te yàlla dogal ñoom

sant sëñ Xaadim ci idée bu mu am pour commencer ubbi ay groupe yoo xam ne dañuy succéder nii mhm. te comme ni mu ko waxee mhm. groupe yooyu pour lan la pour nit ñi ñépp nekk en communication donc képp ku nekk mhm. Ushuaïa mën nga bokk ci groupe bu Argentine donc bokkal ci groupe suur bi wala nga ñëw bokk ci yeneen fexeel daal ba bokk ci benn groupe yoo xamante ne dix vingt trente sénégalais wala deux cent sénégalais ñu nga mhm. parce que loolu day tax yow doo wekk loolu day tax nga am information. da lay te information bu am solo bu ñu am ñu fexe ba groupe yëpp am ko. Mhm. mooy moyen de communication bu ñu mën a utiliser donc nañ ko profitoo. Mhm. au lieu que ñuy toog di graver suñu bopp di wax naka lu lu ñu neex. maanaam ñu utiliser ko pour informer nit ñi. loolu benn. ñaareel bi mooy wax dëgg neex yàlla dëkk bi dafa yaatu kenn ku nekk am na droit nekk fu la wax dëgg neex yàlla fépp fooy gisee sa wërsëg mën nga faa nekk. te sax dafa baax aussi ñun ñuy décentraliser wu sax nekk fii Buenos Aires nekk fi de milieux ca dëkk bi am ay opportunité feneen am ay espace feneen am sax ay empresa yu mën a nekk feneen mm-hmm. yaakaar naa ne eh, lu am solo la pour maanaam mm-hmm. ñun ñu mën koo kii mm-hmm. maanaam kenn ku nekk da nekk ci benn gox képp koo xam ne yaa ngi ci benn groupe bu dara xewee nga mën a xam ne li xew na Argentine dëkk boo dem am na délégation immigration te maanaam bu ñu doon maye kayit tey. Mhm. nekkul na ñëpp dañu ñëw Buenos Aires non ñi nekk Buenos Aires ñooy defee Buenos Aires mhm. ñi nekk Tucumán defee Tucumán ñu nekk Neuquén defee Neuquén ñi nekk mhm. la foo dem am na délégation donc kenn ku nekk da ngay accéder ci délégation bu immigration boo xam ne mu nga fa ñi xam gars sax xam nañ ko ndax ku yor précaria fale même bu fekkee ne konaare benn kon bureau la mais direction immigration yi nga xamante ñoo nekk ci gox-goxaan yépp mhm. day am benn représentant bu Konaare koo xam ne mooy yëngu ci wàll woowu mhm. xam ne ñun mhm. ñoom def say na solo ki ñuy wax baara comme a ci question bu am solo mooy ñi nga xam ne ñu ngi précaires yi léegi ndax suivi bi mooy day continuer rek saa boo demul fenn sax chaque mes précaria bi am na daal ko validate continuelle quoi. loolu eh, décision émergence la ñu bëri dañoo yaakaar ne ñun dañoo toog croiser les bras ci moment yi. Mhm. le 20 mars ba léegi suñu liggéey dafa multiplier par 10. si dafa multiplier par 10 lu tax. Mhm. parce que dernier jour bi nga xamante moom lañ def foofu. Mhm. chaque jour ci premier jour yi dañoo commencé woon di inventer ay plan yoo xamante ne noonu lañ mën a continuer liggéey bi hmm. pour kenn du des sans information di créer page boo xam ne hmm. boo ci duggee peut-être sénégalais yu bëri duñ ci dugg mais boo duggee page immigration hmm. mën nga cee jaar dem page konaare boo ci duggee foofu la ñuy charger bépp information boo xam ne mu ngi am ba sax ñi nga xamante ne dañoo waroon di ñaan réfugié par exemple lan moo tax situation sénégalais yi Eh, jafe ci parce que sénégalais yu bëri maanaam amuñu intra la mais par exemple supposons vénézolano yi nga xam ne bu ñuy ñëw dañoo jaar ci frontière bi ñu kii leen ñu tamponné leen donc kooku bu duggee ci internet di demande réfugié di nga xam ne yow kii dugg si na ndax di nga xam kan ban jour la dugg si mmh. donc di nga xam ne nekkul ci biti mu mmh. ngi ci biir mu ci biir su ko defee sénégalais bi nag bu fekkee ne dugg fi légal boo fekkee ne danga ne dugal ci tramite internet bu amul ingresso mënu koo def parce que dañ lay naan non yow peut-être yaa ngi Brésil wala yaa ngi Nigéria wala yaa ngi Sénégal di ko jéem a def. Mm-hmm. donc faw ñu am lu ñu confirmer ne yow yaa ngi ci dëkk bi te yow ko ndax duggoo moo tax. Mm-hmm. mais terewut sax am nañ boo duggee ci page yu Konaré am nañ possibilité pour ki nga xamante ne mosul woon na def démarche pour demande refuge mu dugg def complete démarche yi te ñun dañ koy kiir bu envoyé ko précaire. Ah, am na ñoo xamante ne bu ñu kiiyee amoon nañ ay rendez-vous et cetera bu ñu consulter personnellement ñu laaj leen ay. yow noo def ndax mën nga bind mën nga kii ndax mën nga remplir lii mu kii ko ñu ne ko mhm. waa fii ngay jaar fii ngay jaar mhm. mais tey boo ko boo fekkoon ne loo xam ne depuis la début da nga ko ne woon non na ñëpp kii di nga gis n'importe quoi parce que yaakaar naa benn jour rek mhm. la fi xaw man fu ñu ko déggee lañ ne gars yi boo duggee ci système bi mën nga renouveler sa <laughs> passeport jour semaine boobu mën naa ne dañoo rey ndax n'importe quoi lañ doon envoyé ci emailu ah, eh, Konaare bi ñi di envoyé ay vidéo oh. cest bu ñu bëggee sélectionner seen précaria sélectionner vidéo oh. am na ñu sélectionner ay recetta ñi sélectionner ay ay ay seeni photo bopp si non du n'importe quoi oh. nuy loo xamante ne peut-être du ñëpp moo ñoo koy defee noonu mais c'est dañoo xam ne la majeure partie amuñu accès boobu. Mhm. donc tant que amoo koo xam ne day toog sawet di lay naan defal lii defal nii yenn saa yi boo duggee ci système yi dangay def ay kii yu doy waar. Mhm. moo tax nag aussi ñu leen di wax. Mhm. ñu préparé wu te ñi mën. jéem a xool naka la ñuy def. pour aussi jàppale ñeneen yi pour ñu mën a def accès. bu ñu demee ci waru renouvellement bi gouvernement bi defoon ne. képp koo xamante ne sa DNI yi mhm. sa précaria bu immigration sa précaria bu konaare jeex na mhm. jàppal ne renouvelable na trente jours trente jours après administration day wax ba pare impresa yeeg wala kii ñi gëm ñi bañ a gëm c'est-à-dire sa précaria tey mënoon nga dem ci benn banque mu ne la non demal ba ñu renouveler la ko nga ne noo am na décret bu génn wala disposition bu gën mu ne la kii mais loolu yëpp du problème parce que à la large loolu du la indil problème parce que boo demee bëgg a def dara ci benn banque wala ancêtre wala feneen ñu te boo ñu envoyé email ne damaa dem telle banque kii ñun ñooy bind banque bi directement loolu c'est à part mhm. mais yor sa précaria di dox kii amul kett koo xamante ne précaria am jeex na ñépp seen précaria valable tant que ñu ngi nekk ci biir Argentine oxo oxo tant que ñu ngi nekk ci biir Argentine. Mhm. seen précaria valable na ci bépp institution bu ñu présenté wu ñu ne leen noo demal renouveler ko na dugg ci emailu ah. Konaré eh, Konaré envoyé ñu photo bi ne ma de ne ñu dem naa tel lugar ñoom ñu ne ma sa précaria bi baaxul. ñun ñooy jël suñu responsabilité communiquer ak ñooñu. Oh, wala ñu defal le boo xam ne dañuy. informer institution boobu ne. Mhm. Eh, lii nii nga ko war a defee wala document bi lii moo tax mu baax wala lii moo tax mu valable. Mhm. leneen li ci topp mooy. Mhm. am na ñoo xam ne ci biir pandémie dañoo perte seen précaria mu war et cetera. si waaw aussi nañ leen maanaam muy sénégalais muy keneen ku mu mën a doon saa yu ñu ko yégee bu ñu informé ci emailu associa eh, pardon associ konaare dañ leen di. defar benn papier boo xam ne du précaria mais dina wane ne kii document bi dafa réer te koy jox kat mën na koo yoragum ba pandémie bi jeex. Mhm. donc boo yoree sa précaria c'est bien moo gën a valable. Mhm. waaye nag bu réeree aussi wala mu yàqu. Mhm. mu xotteeku wala leneen. am nañ pour maanaam jox la benn papier boo a yor ba na. waaw bari bari parce que dama <laughs> sama précaria dafa réer. waaw nax sabab ndax xam nañ. yor yor nañ maanaam nañ def tranquillité rek <laughs> ak sincérité xam ne boo ñëwee wut information rek. Mm-hmm. dinañ la jox kéem tolluwaay kattan waaye boo ñëwee rek ngir naxaate moom. non non non dinañ la ko moom du jàll du jàll du jàll du jàll du jàll. am na solo mais sama soxla xam naa ne waxtaan yàlla waxtaan bi dafa neex ak ñuy topp ndeysaan bari loolu mais nu ngeen def ak sénégalais yi nga xam ne ñoom dañoo génn réew mi nekk Sénégal su seen bekk day am nga ñun moom dañoo soptal ni la ñuy dégg ñun jeex na te kenn xamul dëkk bi kañ lañ koy ubbi te wax dëgg yàlla li yor nekkutoon maanaam dossier boo xam ne dafa valable jëmale 3 mois précarité gën ngaa bëri 3 mois doon donte mi ngi valable sa biir wax dëgg naa léegi nga ni oxo ñi nga xam ne seen précaria jeex na te ñu nekk ci biir Argentine ku ñu génn Argentine nag voilà eh, bien ñaari groupe ñoo am waaw benn groupe mooy sénégalais yi dem Brésil Barado mhm. ak sénégalais yi dem Sénégal Barado foofu groupe bi nekk sénégalais yi nga xamante ne jóge nañ fii dem Sénégal ñi yor dene ak ñi yor précaria au mhm. moins ñi ma ci xam yor ko ci groupe bi mot nañ quatre-vingts personnes yaakaar naa su entre soixante-quinze et quatre-vingts personnes yooyu mhm. muy lu am solo wax dëgg neexee la ndax dañ ciy waxtaan lu fi xew ñu informer leen maanaam mhm. di leen mètre au courant et tout cela beneen groupe bi nga xamante moom lañ créer pour sénégalais yi nekk Brésil sincèrement nañ ma baal mais aussi dama damay réel ci ñoom parce que dama lay naan man ki ma gën a métti ki ma situation gën a métti mooy sénégalais bi nga xamante ni dafa jóge fii dem ba Sénégal seeti famille am ki nga xamante ne dafa jóge fii. Mhm. yor document provisoire dem Brésil wuti kayit. Mhm. brésilien laa koy. sénégalais bu résidé Brésil laa koy jàppee c'est-à-dire situation lu ma ko mën a orienté orienté ko mais sama priorité mooy ci nekk Sénégal. parce que yow da nga jóg dem Brésil wuti kayit donc boo fa toogee mel na ni toog nga ci sa dëkku résidence. Mhm. boo ñëwaatee nag. te lan mooy non xaaral rek mais lan mooy problème mu ñi nga xamante ñoo nekk Brésil aussi. waaw te nga génn légalement. légalement jaar ci kii bi ñu tamponel la. ngay génn ngay génn neex a jàppale. Hmm. parce que da nga koy orienté mu jaar fi mu war a jaaraat rek. ci autorité yi mu jeex mu dugg si waat. Hmm. lan moo xew la plupart bu ñuy génn du ñu. tàggoo ñu kii nii la ñuy kii. jaar seen frontière bi ba man Moustapha naka laay jàppale nit pour mu dugg si ci biir dëkk bi. gannaaw bu mu nekkee ci dëkk bi ñu jox ko document muy génn jaar ci mbartaal wala ci kii. du ma ko def ndax bu ma koy def maa ngi commettre délit mhm. yow booy génn autorité yi jox la document nga génn jaar feneen bañ leen a jaar ban a jaar fa nga fan la jaarloo mhm. booy dugg si kenn mënul dugg ci sa mbir mhm. dama lay naan fekkee ne génn nga légalement booy dugg si de mën naa la jox information pour nga jokkoo ak autorité yi ñu won la yoon nga dugg si te dans ce am nga droit dugg si ndax génnoon nga légalement ñi génn dem Sénégal yëpp dañoo génn légalement moo tax seen kaa aussi gën a facile lan moo xew dañuy dafa amoon benn système boo xam ne auti autorité yi fii créé woon nañ ko muy benn email par région. Mhm. c'est-à-dire ñi nekk Amérique latine dañoo amoon benn email boo xam ne Cancilleria moo lay tontu. Mhm. ñi nekk Amérique du Nord la même chose ñi nekk am am Asie la même chose ñi nekk Europe la même chose. Mhm. ñi nekk Afrique ak benn partie ñu tuddee ko reste du monde la même chose. email boobu. dañ leen ko doon informer pour yow boo demee ba. soxla retourné ci Argentine te sa mhm. document jeex mhm. da ngay informé ci email boobu mhm. boo envoyé du say document ci email boobu ci la ñuy contacter directement konaare wala immigration fi nga am sa document bu ñu contacter dañuy naan kii kat génnoon na fi légalement te kii kat document bii la yoroon document bi te jour la waroon na jeex mais waroon na si pandémie moo tax mënul ñibbisi mm. donc document bi ba léegi valable valable la mais ñun du ñu autorisé ñëw Mhm. parce que ñun duñu immigration loolu ci problème état loolu konaare te boo nekkee à l'extérieur surtout ci situation bi dañ lay lokk lëkkaloo ak ki nga xamante ne mooy consulat bi la gën a jege. yàlla def na Cancilleria lu muy def immédiatement da lay daal di dox dugalaat benn email wu consulat bu Argentine bi nekk Nigéria. Mhm. te aussi mais email boobu ñi nekk ci groupe boobu yépp am na nañ ko. te gaa yaa ngi envoyé. Mhm. boo envoyé email. consulat bi day jël sa dossier ne la envoyé ma sa précaria envoyé ma sa passeport et ñu envoyé leen ñu ne leen dinañ leen defaral mais nag faw nga envoyé ma sa réservation billet bu woon ne yow am nga billet pour ñibbiwaat nga envoyé ko ak sa précaire ak sa passeport bu ñu defee consultation ba pare ñoom ñoo lay defal benn document boo xam ne. Mhm. du dene yi du précaire du dara mais benn feuille la boo xamante ne papier bu ñu signé. Mhm. bu lay autorisé yow nga dugaat Argentine. ci dëkk bi alhamdulilah. papier boobu 30 jours durée 30 jours lay am. Mhm. c' est à dire boo ko amee da nga war a voyager ci 30 jours automatiquement 30 jours yi. lan moo xew. balaa ngay mën a def démarche yooyu yëpp da nga am sa vol bu. dafa nga jekk nag ba ñu bëri lan mooy seen problème aussi. ñu bëri mënuñoo mën a xaar internet mënuñoo mën a xaar email xamuñu nu ñuy bindee message te muy Moustapha muy keneen mënoo nekk fii jël jàpp emailu jàmbur di ci envoyé c'est-à-dire c'est personnel donc li ñu gën a gàllankoor ci àdduna mooy même bu ñu amee information ak orientation dañuy am jafe-jafe ngir defal suñu bopp affaire bi te nit ki nag dafa neex maanaam yow xamul dara yow nga orienté ko won ko nu muy defee léegi mu toog defal ko boppam mais malheureusement alphabétisation yi moo ñu lor. bi des fois que des fois da naan nit ki non envoyé lii envoyé ko fii envoyé ko fii mais du ko mën a def. Mhm. muy lu malheureux ndax. neexul kenn. Mhm. neexul kenn nit ñun ñoo am chance peut-être jàng mais am na loo xam ne aussi lu bëri xamuñ ko mais. ñu ngi continuer di kii góorgóorlu mais aussi. Eh, ñi nga xamante ne yàlla dafa def jaaruñ ci nañ fexe bu seen doom yi aussi eh, situation yi bañ leen te ñu xam ne aussi seen jàng boobu ak seen góorgóorlu ci médias de communication yi maanaam ci email yeeg leneen yëpp weesoogul. Mhm. ñu continuer quelques jours même bu dee benn heure chaque semaine wala chaque chaque deux jours. Mhm. nga ciy jàng di ci xool dina la mën a dàpp jàppale pour ëllëg mhm. nga mën a def loolu sans aucun problème d'accord waaw donc ñooñu ku mhm. ci envoyé say lettre mhm. envoyé sa réservation bi envoyé sa précariat incha allah bi dina la defal li nga euh, xam naa taxawaay bi métti na xam naa temps bi sax incha allah taxawaay xam naa taxawaay bi ñuy dugg si ci dëkk bi dafa fekk ci biir pandémie bi yàlla dawal en général Konaré day joxe tournée bu fekkee dañu si précaria mhm. ñoom gis ñoo dem Konaré parce que fekk nañ Konaré Serrano jox mhm. ñoo dem Konaré mhm. amuñu précaria amuñu tournée ndax ñooñu ñu ngi leen bàyyi xel ëllëg bu ñu ne ba wuti kayit ñooñu daaj ay acte yu kenn xamul xëy noonu non e, loolu yëpp maanaam nit ñi ñu ngi koy bàyyi xel ñu ngi koy bàyyi xel parce que boo gisee keroog bi ñuy bi may naan xayma leen sénégalais yi am précaire ak ñi amul précaire c'est-à-dire loolu yëpp ñu ngi koy. bàyyi xel parce que aussi xam nañ ne am na ñoo xam ne am na précaire am na ñoo xam ne amuñu précaire ñun ñii ñoo leen gën a xam ne am na ñoo xam ne joxoon nañ leen tourne te defaruñu seen kii ndax pandémie bi daa ñëw te ñoom. et personnellement mënuñoo dugg ci système bi pour dugal seen kii boobu donc xam nañ loolu mhm. et c'est vrai que si balaa mu doon gën a neex moment bi fekk ñooñu ñëpp préparé seen yor seen i kii mhm. yor seen i précaria bu ñu mhm. defar et cetera c'est que aussi lenn loo xam ne ñu ngi koy ñaan sénégal yi képp koo xam ne yaa ngi yaa ngi fi ci dëkk bi xam ne yow bi nga ñëwee ci dëkk bi yow da nga jóg dem konaare lay la ngay lay am sa document provisoire boo xam ne yaa ngi ko doon liggéeyee di ko doxe mm-hmm. waay waay boo amee gan bu dee sa mbokk bu dul sa mbokk bu dalee sa wet mm-hmm. ne ko eh le lendemain jël ko nga dem yóbbu gis ay nit ñoo xam ne dañ fi ay at benn at ñaari at ba waxee ñu ne kenn waxuma woon dara mais yow même bu ñu la waxut dara aussi laajteel waaye noo leen di def foo leen di dem bu ñu la nee teel nga jël sa taxi daal di dem ne leen lu ñuy def fii nu ñuy kii wut orientation donc suñu responsabilité kenn ku nekk ci mm-hmm. ku même boo xamul nga ne man de bi ma ñëwee lii laa def. Mm-hmm. yaakaar naa boo ko defoon dina baax ci yow. Mm-hmm. léegi bàyyi ko nag dañu gis ñoo xam ne dañu jóge feneen ñëw daal di dem été ji wala ñu liggéey ba waxee ne non dama demoon tel. donc bàyyi temps yu bëri yoo xam ne duñ def ndara ba mun nañoo am kawsa ci diggante bi. Mm-hmm. kawsa boobu dans ce cas mooy lan mooy irrégularité migratoire. loolu aussi mu ngeen bàyyi ci xel. c'est-à-dire yow ñëw nga ci dëkk bi commettre benn délit. waaye nag wutoo benn document. donc yaa ngi irrégulier. donc bu ñu la teyee fenn. Mhm. maanaam mën nañu ko doon police sax mën na doon ay agent immigration nga xam ne eh, ñoom dañoo am possibilité dem ci dëkk yi. Mhm. wala maanaam ci bal eh, station balnéaire yi. Mhm. wala ci sax poste yi fi ngeen di jaayee sax mën nañoo ñëw taxaw ne jox ma. won ma sa document day am contrôle la. bu ñu la contrôlé gis ne amoo benn document xam nga lu ñu lay defal. du kaw sax mais antécédent la dañ lay enristé comme étranger irrégulier. léegi da ngay am dossier irrégularité. Mm-hmm. ci biir administration. dossier boobu ëllëg. Mm-hmm. boo bëggee def démarche sax même bu ñu lay may kii boo bëggee def démarche faw nga lijjante ba ñu tëj ko nga door a mën a. habilité beneen donc beneen gàllankoor la. donc yow boo nekkat ñëwatee ci dëkk rek ki nga fekk si na la dimbale ne la xoolal man de xaw ma ci kayit dara waaye bi ma ñëwee fii laa demoon. nga dem def muy bien. am na solo sëñ Moussa yaakaar naa góor bu fekkente ne bi ngeen amoo beneen question. dafa dama koy bàyyi ndax temps ma ko téye yàgg na te vraiment dañuy doog a wàcc demagul këram te xam naa ni da nga lay jaajëfal ndax man li tax ma lay koy wax lépp loo xam ne laaj na la ko loo xam da nga koy wax ba mu jeex amul lenn loo ciy wolof day faral di wax ni man li ma gëm mooy nit ku dëggu dama dama gëm da nga nekk yéen nit ku dëggu li man dama gëm nit ku dëggu ne nit ku dëgg nga bi ko topp mooy dama lay faral di wax ne la communauté sénégalais bi fee ñàkk dañ la soxla dafa am loo xamante ne bi ko bindee mooy tabira gis nga nekk li muy doon yàlla moo ko xam naa ko ci yow nit nga koo xam ne da nga da nga xat tellement tey am na ñoo xam ne duñ comprendre xëy na bu ñu envoyé taxaw Moussa Fall tontuwul duñ xam ci lan la Moussa Fall nekk mhm. comprendre nga nit ki yaakaar naa amoo benn intérêt wala amoo benn sens mhm. mhm. yàlla moo ko bind nii dafa am kilifa gu mag goo xamante ne bi que ni exemple laa ciy joxe dafa nekk Jurbel suñu borom dénk ko xéewal muy kilifa saa borom teg ko natt bu métti alalam lu ci bari yàqu kilifa gi fi nekk tey di sëñ Muntaxa yàlla na fi yàgg te wér lool booba nekkagul sëñ mag maanaam booba nekkul sëñ a wax booba sëñ Muxtaar moo fi nekkoon bi mu ñëwee ndax mooy kilifaam ñëw ba ci moom xam nga lu ko wax ne ko yàlla mi la seet ba teg la ko xam na ne attan nga ko kon lu ci war mooy ko donc ba bu daal di dénk yow gis boo bëgg noppal kon da ngi lay jaajëfal bu baax di wax ni la góor bu fekkee ko dolli dama koy bàyyi insha allahu taala ba beneen émission parce que lii dafa am solo nit ñi dañ ko doon xaar yàggoon nañ ko bëgg mais su ma la sa amoo jot amoo temps te mu nekk loo dafa am solo Sénégal yi dafa dafa bari ñu fi nekk amuñu këyit dañu solo ci problème mu document am na ñoo xam ne yàlla ñu itam saa na li leen bàyyi ci mbedd yi mooy problème mu document man personnellement jóge naa fi dem di dawali oto ngir bëgg këyit ñu may mm-hmm. ñu yàlla dimbalee lu mel ni xas ba agsi dañ ci war a approuvé ci nag manière lan ànd ak yar. ak teggin ak patienté. Mhm. te bañ ci dugal benn tappale boo xam ne bokku ci. Mhm. parce que mbir loo ko dugal loo xam ne rek yaakaar naa war dëgg sax maanaam am na noo koy abadi sax da koy yàq. Mhm. kon li am solo mooy xaar patienté te buñ càggee da nga fiy wax li nga am solo mooy nañu dimbalante. nañu jàppale ne ku tane sa morom bul tayal defaral ko tayal a tax parce ñaar ñu bokk wala ñett du ñàkk sax kenn man dëgg kenn mën jàppale ki mënul yaakaar naa loolu bu ko defee rek na sotti encore une fois di la jaajëfal di ñaan sa borom yàggal la fii te wéral la ba yéene yi am yëpp sénégalais yi sa borom àggal la ko fi may mujjee nag mooy dafa am benn question boo xam ne sénégalais dinañ ma ko laaj mooy Tafa ndax yéen ngi xalaat lu gàtt rek benn seconde rek yéen ngi xalaat parce que adduna bi wala attenté mën naa am fukki association mën na nekk mhm. mais ndax yéen a ngi xalaat un jour parce que dafa am foo xam ne dafa mënu leen faa tàqalikoo mhm. même bu ñu tàqalikoo Arsan nekk fii ak ñoo tàqalikoo ma jox la ci benn exemple mhm. tey am nay jamono bi fii Alberto di def euh, genre conférence de presse yooyu noonu ba ak di Sénégal demoon ca yaay xam naa loolu syndicaliste yi ñoom ñoo koy def mais léegi bu fekkonte ne bi que ni boobu yéen nekkoon ngeen ci benn groupe yéen yi nga xam ne yéen la ñëw ay njiit parce que tàgg ba gis am na jàppal diw mhm. bu ñu ba taxaw ci men baram mooy jumaa faw maanaam ku jiite mhm. mënul ñàkk donte ñëpp xam nañu fàtte mën nañoo tari mais faw am ku jiite mhm. loolu àdduna moo ne baaxoo ndax yéen a ngi bàyyi xel dafa ëllëg sénégalais yi dañu nekk benn bopp boo xam ne mënee su koo xar ñaar ngeen boole yéen waa Archa wala waa acte budul sax mënul yéen bokk fi ngeen jëm parce que loolu man leer na ma mais ngeen toog benn yéen njiit yi di waxtaan ci yenn détails yi foo xam ne mënu fa defal ko ndax kayit yi bu ñëwee ak Sénégal yi nekk fii Arsa nekk fii kenn ku ci nekk na mën fii laa bokk ndax loolu du indi benn problème ngeen yaakaar. d' abord man ma commencé fi nga mujje mhm. maanaam ci wàllu kayit wala leneen. Mhm. et dès tey maanaam à partir d' aujourd'hui mhm. jëm ci bépp bu xamante ne jour boo xamante ne loolu mën na yéeg si muy maanaam maye kayit. bu kenn yaakaar ne da far fenn. ngir am loolu na leer ci bopp kenn ku nekk mhm. association benn association mayul kayit te doxul ci benn kayit mhm. man tey lu may wax fii tey mhm. dama koy wax ndax information boo xam ne dama leen koo yéene te bëgg leen a orienté pour ngeen préparé wu waxuma ko ngir association sax dafa leer waxuma ko sax ci turu association taxawuma fii sax ndax représentant association sénégalais bu ñu invité là un point un tir donc association bi aussi dinaa leen ko répété waat. Mhm. mosu leen may te du leen mos a may. loolu moom leer na may ci am dañ ko am en tan que citoyen yàlla daa dogal nag ñu nekk citoyen yuy dox ci biir association. Mhm. donc tey jii nekkul ne buñ demoon bay maye kayit nekkul ne dañoo soxla sax ARSA wala ay acte des Sénégalais yi dajale non dañoo soxla Sénégalais yëpp man koo ci. vraiment dañu fàtte association fële. takku na lu ñuy kii. Mhm. ay nit ñoo xamante ne préparé wu nañ. ay nit ñoo xamante ne am nañ intention jàppale seeni moroom ñu fexe ba ñu capacitar leen ci moyens yi nga xamante ne muy Radex muy système yoo xamante ne ëllëg war nañ koo mën a soxla pour def démarche yi. Hmm. pour benn sénégalais du dem fëgg benn perwaanu naan dugalal Mali wala ñu ne la kiyal ni mal kii. loolu mën nañ koo def ndax mhm. am na nit ñi mhm. donc am na foo xam ne buñ fa eggee dañoo war a fàtte fan mooy arsa wala fan mooy acte wala kuy daara wala kuy lee wala kuy mhm. fële donc dañoo war a ànd en tant que sénégalais bokk en tant que frère loolu nag mooy li nga xamante moom la ñuy wóol te mooy base bi fu nekk mooy base bi leneen li mooy association muy arsa muy feneen fu mu mën a dem mais association si mën na doon ay association yu bëri waaye loolu nañ ko kii na ñun. nañ ko yaatal. nañ ko yaat ah, kenn ku nekk am nga droit nga sa association. Mhm. c'est vrai que képp koo xamante ne yaa ngi nekk ci àdduna li ngay ñaan mooy l'union. Mhm. ndax am na proverbe boo xam ne ñun ñëpp koy wax à chaque fois dañu naan l'union fait la force. Mhm. donc lu ñuy gën di boole rek. maanaam muy gën a mais teewul dañu kenn ku nekk am nga sa droit nga. créer sa gox. mais nag aussi. même mënoon nañoo créer maanaam ak des sénégalais mënoon na am. arsa am mm-hmm. beneen kii am kenn mm-hmm. ku nekk di def sa liggéey bu am solo ci côté jàppale sénégalais mais mm-hmm. muy yoon mais xam nga lan la c'est que dafa am moment yoo xam ne dañ ci war a booloo dañuy fàtte li nga xamante ne mooy suñu parti yi maanaam fi nga xamante ne mooy suñuy groupe léegi daal di toog nag en tant que responsable lijjante benn mbir ndax ñoo ko bokk Mhm. cest a dire yow da ngay def sa jëf fële def sa kii jàppale fële kële jàppale maanaam liggéey bi sax day gën a facile. Mhm. mais dafa am moment yoo xamante ne diversification yi def ñuy gaañ ñun ñëpp. mooy li ma ndax kii day jëm ak information. fële ñee gëm ko kee jëm ak information. donc loolu day indi ay jafe donc bu yu mel nii amee. Mhm. man à chaque fois man dama respecter territorialité. des fois. maanaam su ma xamee ne peut-être yow ci lii ngay dox walla yow ci zone bee ngay dox. du dugg foofu tànk que waxuma la ko. amut loo xam ne dinaa ko ñan ñaan wala dinaa ko laaj ci ab ku nekk Mendoza te jaaruma ko ci délégué yu nekk Mendoza. Mendoza amul loo xam ne man dinaa ko xool ci waa ONCE te xooluma nan ndax am nañ koo xam ne mën na leen représenter muy moroon muy feneen muy feneen donc ñun noonu la ñuy doxee donc bu ëllëgee bu dara xewee dañuy toogal ñooñ ne leen mhm. eh lii nañ toog waxtaane ko mhm. muy message bi ñu war a lancer mhm. muy acte boo xam ne dañ ko war a def mhm. muy ay représentation sax des fois yoo xam ne bu amee mhm. dangay naan non xaar leen lii ñu waxtaane ko fii parce que message bi nii la war a demee mhm. message bi contenu bii la war a kii ñun ñu dajale ko te xam nga lan moo tax ma gën a xam ne mbooloo dafa am solo te dafa am njëriñ mooy coordination force covid bi ma créer bi xaalis bii di ñëw billaahi wallaahi non seulement seede bi nga xamante ne am nañ ko ci mais décision yi ñuy jël. Mhm. ak ndimbal bi nga xamante ne mu fay jóge ak idée yi fay jóg ndax kenn mhm. day indi proposition kenn ku nekk keneen indiwaat proposition. ñëpp mhm. nekk ay responsable. ba ñu jël ko daal di ko daal di ci génne benn solution boo xamante ne day mun a jëriñ. kenn mënu leen ko wax. loolu mooy wane ne bu fekkee ne ñi nga xamante ñuy nekk ci Argentine bi kenn ku nekk am nga sa yéene maanaam yor sa. coté sa association wala noo ko mën a kii c'est bien mm-hmm. mais lu am solo mooy ñu respectante mm-hmm. bañ a jiiñante loo xamante ne kenn mm-hmm. xamul fu mu kii mais aussi bu moment bi taxawee ñun ñëpp ñu mën a toog ci benn ban waxtaan def loo xam ne pour l'intérêt public l'intérêt communauté muy intérêt sénégalais yëpp lay doon waxtaan ko ci jël koo xam ne même bu fekkee ne fële lay jóge ñu ne ko message bi lancé ko ci turu ñëpp mu solo tant autorité yi nga xamante ñoo yor communauté sénégalaise ñu ngi mm-hmm. jokkoo seen biir ci yenn question yi mm-hmm. du ñu am jafe-jafe bu ñu bàyyee nag benn secteur di ñëw ne arsa yéen a fi génn waaye xaaral yëkkati leen wala kee ñëw ne yee yéen a fi génn dañ ñuy diviser ba pare dugal ñu ci problème boo xamante ne duñ ko mën a lijjanti te ñun dafa am loo xamante dañ koo dund mm-hmm. te duñ ci jànge dara suñuy maam sax ñoo ko dund muy l'esclavage l'esclavage et la colonisation mhm. ab njaam ak colonisation njaam bi moo gënoon a bon mhm. mais colonisation bi aussi moo gënoon dafa metti woon te moom dafa continuer ba léegi mhm. te bu kenn yaakaar ne français yi kese ñooy coloniser tubaab yi ci boppam ñoom dañ ñoo jàppe comme nit ñoo xamante ne peut-être dañoo yaakaar ne ñun du ñu xalaat comme ñoom mën nañoo yóbbu fu nekk <laughs> ñu bëri du tubaab yi kese de même sax am na sax ñun noir yi sax dañuy dem des fois bay utiliser yenn force yi buñ gisee ne diw mën na kii nii wala xam ne fii tuuti xaaral ñu jëy ko rek utiliser ko ci benn kii. am solo loolu buñ ko dul xalaat des <laughs> fois ñuy daan foo xamante ne nañ bàññi ñu utiliser. Mm-hmm. loolu dafa am solo jiital suñu xel ci lépp. nañ jiital suñuy xel lépp bañ ñu utiliser ñu. Mm-hmm. nañ xiis suñu xel ak suñu xalaat merci beaucoup merci beaucoup jërëjëf suñu soir ñoo xam ne sa mu gu mujj lan la suñu soir. sant ñëpp. ndeysaan gërëm ñëpp. Mm-hmm. Eh, di leen baal ak te di leen baalu ak. di jaajëfal sénégalais yépp nag uh-huh. surtout ci moment yee nga xamante ne am na vidéo boo xamante ni jaaroon na fi ak ay wax te man tontuwuma ci te dégg li sénégalais yi di wax donc seede yàlla ak sedd mbooloo bi moo am uh-huh. solo uh-huh. donc ma ciy sant sénégalais yi tey laa ciy soog a wax donc euh, te duma ci wax leneen lu dul sant sénégalais te wax leen ne buy bu ci yàlla di ànd bu mhm. soobee yàlla mhm. illah yow mi diini mhm. loolu dina ma gën a yokk doole ba ku yaakaaroon ne dinaa découragé xamal ne am nga defet ndax tey laa gën a am defet te tey laay gën a góorgóorlu ndax leer na ma ne képp kuy jëf lu jub te yàlla rek tax doo ci mos a rus jël jërëjëf mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di leen wax ne leen incha allahu taala ba axamis bi di ñëw ak beneen numéro incha allahu taala jërë ngeen jëf waaye yow huit heures lañ commencé ba dix heures a demee pour lan lito maanaam may xool internet bi di gën a bari nit ñi di gën a yëg deux cent cinquante muy gën a bari ma xam ne nit ñi di parce que yombul ba tax nag moom bu approché parce que yow yomboo yomboo fi nga may wax di ma dawloo naa ma seeg su a suba moo tax ma approché ci yow rek moo kenn nag ma baal. waaw <laughs> ah, Moustapha nag daa bëri wax de Moustapha bu leen ko wax la. no li nga développé dafa am solo yow. 250 man lii mosuma ko am ci sama ci ci sama interview <laughs> sa ana sa kii eh, a nag yow di nga mën daan baax kii. asalaamaaleykum sëñ bi naa def mbayaa si jàmm waa